waaye mu gis ne ginnaaw mbir mi yaatu na lool ca lu waay defit nag da jàpp ne sa morom nga koy defal lu sa morom yi defit nga jàpp ne yow la koy defal ndax dañuy xam ne yéene yi yenn la moom mooy feeñal sëriñ bi ak feeñal ab liggéeyam taxawaayam bu rafet bu sell bi nga xam ne amoon na ko ba nu mu fi jógee mënoon na ne wut bis boo xam ne xam na ne moos ni waxtu di xate xam na ne moos ni waxtu di xate xëy na dana jafe lool ngir tomb yi yi nga xam ne moom lañuy ñuy war a waxtaane ci sëñ bi yépp ñu waxtaane ko ba ñëpp doyal bañ gis ne mat na sëkk dana jafe lool waaye mu ne woon nag ne ñu tànn borom xam-xam yoo xam ni xam nañ ne bu ñu fi teewee kenn ku ne tomb bi nga xam ne moom lañ lay jox danga ci mën a waxtaane loo xam ne lu mu gàtt-gàtt dana amal njariñ ñi nga xam ne ñoo xamoon ñu fàttaliku ñi xamul woon xam jural ñi nga xam ne dana indi ay junj ak ay joxoñ yoo xam ne ku ci sab yër àggul woon wala sab gëstu àggu ci woon wala sa xam-xam àggu ci woon dana la jaral laxasaayu jéem a dem seeti joxoñ yooyee lu mu wund jéem koo gëstu nee na loolu moo waral tomb yi nekkul benn tomb nekkul ñaar waaye lu nekk rek dana mën a jur lii ñu wax léegi muy fàttaliku xamoon ak xamal ki xamul ak soññi gëstukat yi ñu xam ne mbir yi des na lu baree bay Cheikhuna al Xadim ni mu bëggee woon yonent bi sallallahu alayhi wa ak liggéeyal gi nga xam ne moom la ko doon liggéeyal ca muy lu yaatu loo xam ne insha allah taala ki koy waxtaaneel di a Cheikh Ahmadou Mbacké Daarul ci mën a jariñu bu baax tombum ñaareel bi nekk alamiyatu daawati Cheikh al Xadim anhu daj kapp wala adduna wërngal këpp wër gi nga xam ne daj na ko adduna bi moom woote Cheikhul Khadim ba fu mu mën a demit ñu mën koo nangul ngir li mu làmboo loolu it ki ngi ci waxtaane bu ñëwee dana mën a ci waxtaan lu nit ñi mën a jariñoo muy at docteur Abdoul Ahad Sané ñetteelu tomb bi nekk falsafatu Cheikhul Khadim radiyallahu anhu fi tarbiyati wa taalim Serigne Touba falsafa bi mu doon jëfandikoo ci lu jëm ci wàllu yar ba mu mën a jeexitale ci ak njabootam jeexit juréy jii ak xeetu njàngaleem it ni mu mën a jeexital yoon yi mu jaaroon tërin yi mu daan tër moom lañu fas yéene waxtaane ki ñu koy waxtaane moom it bu ñëwee danañ ci mën a doyal insha allahu taala muy ki nga xam ne moom mooy al ustaaz al mudir al cheikh Fadil Bousso Hassan ñeenteelu tomb bi mel ni xëy na moom xaw naa raar nuñ koy waxtaane muy mel ne day jàkkaarloo murid bi di wax ak moom naan ko tasawwar jalasaat Cheikh al Xadim radiyallahu anhu wa ka annaka jalasta da ngay jañeer jataayu Cheikhul Xadim ñu daan jataayoo ak mag ñu baax ña magam ña nga xam ne ñoom yar ñoom la yar defar leen ngay jañeer jataay ya di ko jañeer ba mujj nga mel ni dangaa toog ak sëñ bi muy wax ak yow loolu sëriñ Mbàkke Lo Muhammad xam naa moo ciy wuutu sëriñ Mamour Mbàkke Hamdi ñoom ñaar ñëpp di ay ndaw ñu jàmbaare ñu am taxawaay ñoo xam ne bind nañ ci mbindin woo xam ne xeetu mbindin wu bees la ci yoon wi ca nag am solo lool tomb bi nga xam ne moom moo ci tege di juróomeelu tomb bi mooy xidmatu cheikh al xadim li kitaabillahi al karim yàlla dogal ak docteur Mouhamadou Moustapha Diom Ndar waroon koo def waaye mu am ngànt waaye buñ ci àggee des na ko résumé lu gàtt insha allahu taala ñu tànnoon juróomi tomb benn bu njëkk bi nekk xubbul qadim wa xidmatuhu lil maxdum naa muhammad moomu ku ne xam na ne sëriñ tuuba mën nañu wax ne mooy ki ko gën a sopp ci jaam ni loolu ku ko wax yaakaaruma ne juum nga ngir fi mu jaar ci bëgg rasulullah sallallahu alayhi gépp da ko seeyal ci rasulullah sallallahu alayhi ak liggéeyal ko alayhi salaatu wasalaam xam ngeen ne nit ki amut lu may jëmmam ak njabootam ak i waajuram ak waxtoom te loolu lépp sëriñ bi da koo jëloon jébbalaat ko rasulullah sallallahu ci biir cofeel gu diis gu rëy goo xam ni da ci daa giñ ci yàlla ci wax ne rasulullahi day moo ma gënal lu may moom gis nañ ci dundam léppam da koo jox rasulullah sallallahu wax na ne jumlatu maali wa midaadi wal qalam hadiyatun lil mustafa baabi niam juttu lahu lyawma bi ruuxi wal badan wa waladi wa waalidaya fi lalam xabawtuhu bi xidmati wa nafsi min saacati ila xululi ramsi këram yeeg bërëb yi mu amoon yépp it da koo joxoon rasulullah sallallahu alayhi wa sallam laka yaa nabiyu manazili wa mawaatini wa te loolu bànneexu ak cofeel la xam nga bëgg du luñ mën a du lu am ay ay dawaabit ak ay régal ak yëpp bëgg dañuy wax ne sayyiduna Suleymaan alayhi salaam yàlla da ko mayoon mu mën a gis mu mën a dégg li njanaaw yi wax benn bis dafa gis ñaari njanaaw bu góor ak bu jigéen ñuy waxante njanaaw lu góor li xamul ko ne ko paleb Suleymaan bee de boo ko bëggoon léegi ma dajjati ko indil la ko Souleymane muuñ laaj njanaaw li ci li wax misaal la rek nee na njanaaw la xamal ko ne ko loolu waxi hada kalaamul muhibbina kalaamul muhibbina noonu lay mel sëriñ bi da gis ay cëri boppam lu ci ne mu di ko jox rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hadiya lakka lisaani maal janaani ba àgg ci zimaami zimaami al yawma jaaltuhu abad fi yadi ahmada fi yadi ahmada li taati sama hablin nabi yi sanati wa shahri ay jamono ma ay atam ay weera ak léppam da koo joxoon rasulullahi sallallahu alayhi wa fii ka dahabi ay yëngutoom ak ak dalam lépp koo def ci rasulullahi sallallahu alayhi wax ne mooy sama te sama digg ak moom doxaliwuma fi kenn léeg-léeg sax nga gis mu giñ ci yàlla ne rasulullahi sallallahu laa gën a bëgg ci lépp lu may moom ginnaaw suñu borom tabaraka wa taala billaahi ahbabtu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam alayhi xayru salawatillahi gis nañ dadaa wax sax ne adduna benn taar la am lenn moo fi taaroo lenn moo fi neexit muy Moustapha sallallahu alayhi wa sallam muhammadun zinatu dunia wa laddatuha dadaa wax ne man bëgg naa yonente bi moo tax am naa loo xam ni doy na ma sëkk ndax ku am lu doy da ngay doylu ganimtu xubbal mustafa wa aktafi bi daaka fal muta kafaafan yaktabi dala wax ne mooy sama yitte ci lépp awma jëleen yitte lu may moom nabiyuna al mustafa xayrul wara garadi fi kulli cheyin wa maa yabaahu wax ne tudd turu sayidna muhammad sallallahu alayhi wa mooy sama wittalu xol mooy sama mbégtem xol mooy leerug sama xol muhammadun dikruhu unsi wa mafraxati wa nuuru qalbi wa aadaa'i wa raaxaati dana wax sax ne mën a tudd turu yónnante bi ci saw làmmiñ di ko tagg mbaa ngay julli ci moom loolu xéewalug suñu borom la koo xam ni du ku ko bëgg a am am ko wax na ne dikru nabiyil mustafa bil madxi aw bis salaati qismati wa ribxi dalika fadlullahi yutihi liman yashaau min ibadihi xayra minan dalika lam ajidhu bi taxayuli bal niltuhu bi maxdi taxsiisi alali dalika nicmatu ilahiya alkarim wa innani an shukriha lastu arim daaka alladi tayaba nafsiya kama aqarra ayni wa shakartu niama dadaa wax ne su ma amee jàngoro yaram wéradéeg yaram lenn rek mooy saafara si mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam shifaau jismi wa shifaau qalbi muhammadun wax ne bëgg ko bëgg àgg na ci ma fàtte leneen lu may moom bi man bi xubbihi nasiitu layla wa dahaban wa fiddatan wa xayla wax ne dama màndi ci bëgg ko maanaam bëgg rasul dama cee naan ba amatuma sago ci moom sakirtu min xamri mahabbati nabi fala azalu fi thanaa'i mutaybi daa wax ne bu doonu géej dama cee lab xariqtu fi baxri mahabbati rasul daa wax ne mujj na sama bëccëg ni guddi gi lëndame noonu la bëccëg bi lëndame ngir bëgg gu tar gu nekk ci man ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ahmadu man ahmadu man saara nahaari layla bi xubbihi loolu wax na ci lu bare bare nee na mooy samay farata di samay naafila di sama sunna wasiilati wa junnati wa jannati faridati naafilati wa sunnati sayidina shafiina muhammadin dana wax ne bugyati himmati wa aqsa matlabi muhammadin wasiilati li arabi mooy leeru muhammadu nuuru qalbi astaniiru bihi wax na ci lu bare bare bare dana gin ci yàlla ne amulum kemm kenn melut ni moom billahi lam yaati wa laysa yaati mislu bni abdillahi dil ayaati wallahi lam yaati wa laysa yaati xalqun ka mithli sayidi saadaati wax na ci lu bare bare wax na ne ñépp moo leen féete kaw annabiyuna ahmadu faaqa al anbiya wa rusla wal amlaaka inda rabbiya ahmaduna al muxtaaru faaqa al faa'iqiin al qudamaa wal xiyaar al laaxiqiin inna bna abdillahi faaqal xalqaa lafdan wa maanan xuluqan wa xalqaa ala albaraaya wa anqaaha wa akramiha muhammadin man lahu maaxirtu muxtasiba wax na ci loo xam ne àgg na ci wax ne képp koo gis mu koy tëkkaleeg bindeef xamal ne kooko xel ma neexul safiha man yaqiisuhu bi ahadi inna bna inna abal qaasimi laa yuqaasu bi basharin dalla alladina qaasu kon bëgg gi mu ko bëggoon te loolu ak yëmul ci wax rek da koo jëf ci njëlbeenam ca Mbàkke Kajoor ba fa sëñ Mor ànd sëri jógee ku ne seetlu na xasida yam fi def ba nim ñëwee Touba yëpp it tey bëgg a ji Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ca la nekkoon danaa wax ne Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bëgg gi ma ko bëgg a siyaare loolu ñaan na ko ba tey arju bi rahmatihil muhdaati sayyidina zawri madinatahu daara rayaahin ma mata maa yazurha zairun li hudan daarul xaqi wa diin dana wax ne ñàkk gi ma ko ñàkk ziyaara gàllankoor bu mag moo ma ko tee ziyaara sama xol moom waxtu ne mi ngi koy ziyaara ji waaye jëmm ji moom dafa am gàllankoor wa huwa alladi yaqa jismi an ziyaaratihi lakin lisaani lahu kal qalbi zawaaru àgg na ci wax sax ne loolu weesu na gàllankoor xam naa sikk la su ne ci man soo xam ne moo tax suñu borom nattoo ma mënuma ko ziyaara ji yaququni aybi an ay wa artaji bi matxihi lbushara ya yasuuni wa ayni lam tara wa lam ara almadinata ci wax ne dootu sikk sax waaye lii bàkkaar la xam naa yoo xam ne moo ma tënk lam ara wa lam ara almadinata loolu daa mujj def ko gàcc nga dégg muy wax ne gafaaru lixfir dunubi wafku kan kabali bi man alaya li tarki zawrahu aaru bi man yuxaatibu nii fi zawri rawdatihi baytaani min qawli man bil urfi aw amaaru zur man tuxibu wa in chattat bika daaru wa xaala min dunihi sahlun wa aw wax na ci lu yu bare bari waxin yoo xam ne xasida yi mu def ci diggante boobu day fësal cofeel gu réy gi mu amoon ci bëgg a ji mustafa sallallahu alayhi wa sallam di ko ñaan ba sunu borom may ko nag bi mu fii ci Touba fi la njëkk a gisee ak rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ci fii ci Daarul Qudus ci jàkka ja ni ko Cheikh Mouhamadul Bachir waxee wax ne awwalu maa aayana rasuli rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ko Cheikh Mouhamadul Bachir waxee yàlla dogal yëmut ci bëgg ko waaye damay gàttal foofu rek lépp loo xam ne taq na ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam noonu na ko Sëñ Tuubaa bëggee woon Sëñ Tuubaa moom lañu gis muy jëmm joo xam ni lépp lu loo xam ni dañ ko moomale rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wala rasulullah sallallahu alayhi wa si am ca benn cër rek da ko bëgg-bëgg gu kawe danaa wax ne nuhibbuhu salla alayhi llaahu xubban bihi nuhibbu man walaahu lépp lu tax ci moom rek noonu laa ko bëggee noonu la bëggee woon alquran danaa wax ne alquran mooy sama diine diini kitaabul Mustafa laa xayru mooy sama diine ndax mooy téereb Mustafa ba sallallahu alayhi wa sallama quraanu ahmada laa abgi bihi badalan xadis yonente bi noonu la ko bëggee woon dinaa wax ne ahadis annabiyi anta xalili wa xabibi wa juttali bi sadaali dinaa wax ne kalaamuhu muy kalaamul mustafa laa abtagi bihi badal li annahu ala kitaabihi adal bu ñëwee ci lu mel ne làkk wi yonente bi daa wax sax noonu la ko bëggee woon Sëñ Tuubaa mooy jëmm joo xam ne bind ci lu dul lugal arabiya bi nga xam ne moom la rasulullah sallallahu alayhi wasallam daa daa wax te daa wax ne li tax ma bëgg làkk wi weesuwul bëgg gi ma bëgg rasulullah sallallahu alayhi wasallam moo ko sabab xubbi lahu qaada lisaan al arabi liya wala wali bihi yazidu qurabi dadaa àgg sax ci wax ne maa ngi jéggalu yàlla bu sama làmmi jengee ba jublu beneen làkk bu may lugal arabiya tubtu min al mayli ila gayri lisaan al arabi wa zafirtu bil xisaan dana wax ne lugal arabiya aljana la ci man al arabiyatu gadat lii junna an il wa jannatan lil janna ndax baat yi rasul lay da ko daa wax sallallahu alayhi wa sallam ma am mbégte nag ak bandeex bu rëy ci wax baat yi rasul lay sallallahu alayhi wa sallam daan wax biatu siwa lisaani fi lugaati bil arabi mu jaay làkk yépp jënde ko lugal arabiya yaakaar naa ci ay mbindam leen lañ seetlu muy baatub sant lañ gis mu wax ko ci lu dul arabiya wax ko ci làkku français ak wolof li mu wax ne rabba sama wal ardi rabbal arsi lakka saraftu jërëjëf wa mersi te loolu moom cant gi mu doon sant suñu borom moo àgg ci moom foofu mu wax ko ci làkk yooyu noonu la bëgge woon njabootug yonente bi alayhi salaatu wasalaam noonu la bëgge woon saxaaba yi saxaaba yi jox na leen hadiya joo xam ni yëkkaru ma ne nit mas na leen koo jox te kenn duutu na leen ko duutu leen ko joxati suñu borom moo wax ni kenn ku ne yonent bi alayhi salaatu salaam moo ko wax am na kenn ku ne da kër bu la tabaxal ci aljana ak kër ca sawara soo dee jëf-jëf ju baax yaa ngi màbbu kërug sawara ga di gën a tabax kërug ajjana ga ba dee ju bon nag yaa ngi gën a màbbu kërug ajjana ga di gën a tabax kërug sawara kenn ku ne am nga suñ tubaa nag dafa ñaan suñ borom mu jox ko kër yi noonu yàlla yi nga xam ne buñ baaxoon danañ ko am ci ajjana suqli manazila idaaya fir jinaan bila xisaabin wartu tayyibil janaan hmm. ba ko suñ borom mayee mu def ko haddiyee saxaaba yi ataytu saxbahu manazil al ida fi l am man ada haddiyee jooju yëkkoor des na gis keneen ku ko mës a jox ñoom saxaaba yi te yi la tax mu bëgg leen mooy bëgg gi dend gi ñu dendoon ak rasulullah sallallahu alayhi wa sallam àndoon nag la ko fonke woon moom weer wi yëpp la daa mokk la daa wax ne euh, li daani ila ixyaai da shahri kawnuhu li xayril wara zarfan du noonu la daani ila ixyaai da shahri kawnuhu li xayril wara zarfan xawa kulla sudadi mi ngoo mooy jëmmi weer wi laay màggal màgg weer yépp la daa màggal dana wax ne bu weeru gàmmu ñëwee dana wax ne wéri di yeeg feebar ak tàyyeel ak lépp day teqalikoo man yaa xayra shahrin jaa bi mursali adhabta qataan maradi wa kasali anni maxawta kasali wa wajali wa xayrati daa ismatin min xajali noonu yi la bëggee woon xeetu yónnante bi alayhi salaatu ndax askan gi leen askan ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñaanal na leen ba tàyyi taxawu na leen ba tàyyi dafa jàppe woon jullit ñépp ñuy ay ñuy ak njabootam bind na wax ne li ma yéene ñi ànd ak man moom laa yéene ñi àndut ak man ñi nga xam ne ñoo jébbalu ci man dama leen yéene moom la yéene ña ca des te jébbaluñ ñoom man taxaw na ci euh, matlabu shifa yi ñaanal leen ca ñaan yoo xam ni te sëñ Tuubaa lum ñaan yàlla ñong na ko wali taquudu su la waqta bi loolu la sëñ bi te waxoon na suñu boroom ne ko wa najjihim wa aafihim waltuf bihim wala tuwaaxidhum bi kusri dambihim fa innahum wa in asawka yaa ahad li gaflatin lam yushrikuu bika ahad wa innahum abdaanuhum laa taqdiru ala balaaika li ducfin yadharu qulubuhum laysat tamiilu abada ila siwaaka haahuna thumma gada lakinama talassusu aljawaarixi afdaahumu li aqbahi alqabaahi falaa tuwaaqidhum bima laa yanqusuk wa lahumu habi alladi laa yanfauk muy dem rek bu ñëwee nag ci xidma ngir gàttal rek ñu ñëw ci liggéey bi mu doon liggéeyal Moustapha sallallahu alayhi wa sallam foofu dañuy gis ne ci mbindam am na ñeenti anam yoo xam ni sëñ bi dafa wax ne ci lay liggéeyale yonante bi alayhi salaatu wasalaam liggéey bu njëkk bi wax ne xidma liggéeyal yonante bi alayhi salaatu wasalaam ak dundam gépp mu def ko ci jëmmale ko ci loo xam ne day liggéeyal yonante bi alayhi ak luy taxawal njubug rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gi loolee sëñ bi daa wax ne mooy sama diine sama adduna sépp mooy liggéeyal Moustapha sallallahu alayhi wa sallam diiniya xidmatu nabil maqbuli bi maa li yaxtaara maa sabili danaa wax ne sama lépp def naa ko ci biir liggéeyu Moustapha bi sallallahu alayhi wa sallam ala alladi xidmatuhu ashgaali ñooy sama yitte taabu fikri wa intidaamu kalimi fi xidmati almuxtaari faxri qalami te li tax mu koy liggéeyal moom Moustapha sallallahu alayhi wa sallam danaa wax ne weesuwul bëgg jëmmi rasulullah sallallahu alayhi wa ku ma ci leneen beneen intérêt taxul bëgg dara lu may jëmmi rasulullah sallallahu alayhi wa ji rek taxul ma di def lenn lu may def jëm xubbu daatihi daxaanii li ixdaami nabi xubbu daatihi yaquuduni li xidmati lmuxtaari rajaauhu wa xubbuhu lil baari li lay xamal ne yàlla kese ak jëmmi rasulullah sallallahu alayhi wa la bëggoon te benn intérêt la bëgg gi mooy àgg na ci muqaddamatul xidma nga gis muy ñaan mu ne wajaal ni mimman yaxdimuunahu fil jinaan bu ñëwee ba aljana nag ma may ma bokk ci ña ko fay liggéeyal Moustapha alayhi salaatu wasalaam te aljana amatul ay liggéey aljana amul kër-kër amul sax jaamu yàlla ci niñ ko waxee kon liggéey boobu mu ko doon liggéeyal liggéey bu sell la boo xam ni jëmmi rasulullah sallallahu alayhi wasallam moom dana wax ne liggéey boobu nag mooy sama lépp mooy sama taarub adduna di sama taarub zahir di sama taarub batin zinatu zahiri baax ni ma wa baatini maan kawniya xaadiman lahu muttabia darajati fi lleyli wa nahaari xidmatu jaaril anwaril bahaari ci mbindum sëñ bi nag da dañuy seetlu ne ñeenti anam la ko daal liggéeyalee ba ci jëkk mooy topp su sunnaam loolu wax na ci ne dama koy def ngir liggéeyale ko ko ñaareel ba mooy yeesal diina ji ak tasaare ko ñetteel ba mooy tagg ko ñeenteel ba mooy julli ci moom ci gàttal rek yu ci ne ñu taxaw ci yooyu bu dee topp sunnaam moom mën nañoo wax ne Sëñ Tuubaa dafa copié woon rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mooy ki gën a dund sunna ci li yàlla sàkk moom danaa wax ne awma jenn yitte ju may xam la rasulullah sallallahu alayhi wa bëgg ak lam daa def ma di ko jëfee laysat liya al yawma xaajaatun uammiluha si waqtifaika qafwa al qalbi wal badani aslamtu nafsi li rabbin la sharika lahu maa alladi qafuhu suxli wa xaajaati loolu moo doon yitteem xam li wér ci sunna si yonte bi mu di ko ca roy nit ñi topp ci moom it ak jullit ñeeg ñëpp dénkaan bi mu leen doon dénkaane génnul ngeen topp sunna si yonte bi alayhi salaatu ci lu bari wax ne ayuha al qawmu saaricu littibaaci sunnati almustafa raisi siqaati wasluku nahjahu jamian tafuuzu bi rida rabbikum wa biljannaati jumlatul xayri fi tuqaa bi ittibaai sunnati almustafa alaliyi sifaati fal xayru fi maxtaarahu almuxtaaru laa fi lladi nufusukum taxtaaru yeesal diina ji itam def na ci loo xam ni yumbul nga gis liggéey bu mel ni ni nga xam ne moom la ci sëriñ bi def ci kaw suuf liggéeyal ko diine ji ak liggéeyal ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax sëriñ Tuubaa moom da koo def ci anam yu bari mooy dafa jàngale diine ji ci njëlbeen moom ci moom moo daa jàngaleel boppam ginnaaw bi la wut ñuy jàngale ñoo xam ni mbooloo lañ mu baree bari ñoo xam ne mën a sunal lim da dégg ñu wax boroom daal Muxti mu ko daa jàngaleel xam-xam sëñ Mbàkke Buso daa ko jàngaleel xam sëñ Mamoor Jaara daa jàngale xam-xam sëñ Daam Abdurahmaan Lo daa jàngale alxuraan waaye ci seen suuf ay téeméeri téeméeri sëriñ sëriñi daara ñoo nekkoon ci ñoom sëñ mu dem mën nañ caa lim ñeneen ak ñeneen yu bare bari ñoo xam du du du jeex bu ñu leen doon lim sëñ bi nag moom mujj gi bi nga xamee ne tàmbali na tërbiye gi rabbi asxaabaka bil himmati ca Mbàkke Kajoor foofee dafa tàmbali moom féetewoo di taalifal waa daara ji ay téere ba xam-xam yépp fànni xam-xam yépp taalif na ca bu dee ci tawxiid taalif na ci lu bare bare bari ci ay téere bokk na ci mawahibul quddus ak faydul ghaniyil mughni jasbatu sigaar ak yeneen ak yeneen yu bare bare bari bu dee ji fiq taalif na ci lu bare bare bari jawharul nafis ak yeneen ak yeneen bu dee tasawuf taalif na ci lu bare bare bari masalikul jinaan ak munawwar sudóor ak mu layyinu sudóor ak yeneen ak yeneen gis ngeen daayira bi nekk Maroc fatxul gafaar dajale nañ yaakaar naa fanweeri téere ak nangam lu ko jege ci benn mu jël la tudde ko diwaanul ulumi diini ya yooyu yëpp lenn la rek ci taalif yi sëñ bi taalif ci diine te loolu da ko doon taalif ngir waa daara ji abussu li wajhillahi ilman mubarakan yasurru alladi ahya layali an an qumi nee na da ko doon def di yulli xeeti xam-xam yu barkeel yooyu ngir bégloo Moustapha sallallahu alayhi wa moo doon moo doon jubluwaay bi daat mahabatul ilahi wannabi qalbi li nusxi aqrabin wa ajnabi waaye yëmutoon rek ci jàngale waaye dara tërbiye itam tërbiye mënta ñàkk nit ki boo ko jàngalee rek bàyyi ko bu ko yàlla dimbaluwut mën nga bañ a jaar ca yoon wa ndax jàngale ki la koy defal amut ci yow benn sañ-sañ bi dana jox xam-xam rek bàyyi la bu la neexee def bu la neexee bàyyi loolu moo indi yoonu tërbiye yi nga xam ne moom da ngay jaayante joxe sa bopp jekk ci sëriñ bi mën a soppax ni ko ci yow nu mu ko neexee bu ko defee nag mu jaar ak yow ci yow taskiyatu nafsi loolu dafa amoon daaree tërbiye joo xam ni sëriñ bi moom moo jiite woon liggéey ba yépp ginnaaw bi bit mu génnee ci ñu bari ñoo xam ne dañoo nekk ci biir réew mi di defar ñeneen loolu it mënoon nañ ci wax lu baree bare bari sëriñ Tuubaa ba ni mu nekkee ci biir euh, tubaab yi gis nañ mu leen di woo ci lislaam lu baree bare bari yaa ayyuhal yahuudu wan nasaara kunu li xayri mursalin ansaara tuubu ila ila ilahi watlubu lhuda minhu taala bitibaaci ahmada baana uluwuhu min allahi al ahad wala nabiya baadahu fi ma wal tuubu wa aminu wa aslimu maa wa ahsinu wattabiu almusafaa wax na leen ba tey ne leen waylun lakum daana leen xupp léeg-léeg ci ngeen bu ngeen tuubu de da ngeen am jafe-jafe bu rëy waylun lakum in lam tatuubu lil jalil bi xubbi abdihi xabibihi alxalil kon loolu benn la ci ni mu daan liggéeyale yonente bi alayhi salatu wasalaam waaye bokk na ci ni mu ko doon liggéeyale ba tey mooy tagg yonente bi alayhi salatu wasalaam sëñ Tuubaa mooy jëmm joo xam ni moom yàlla da koo defal tawféex ci lugal arabiya jekku gi mu ko jekku ak dégg gi mu ko dégg ak xereñe gi mu ko xereñe moom moom xar baax la waaye nag waxam ju neex joojee taggam wax ne kenn rek moo ko yeyoo muy Moustapha sallallahu alayhi wa sallam jamilu li jamilin abhaja salla alayhi xayru baaxin bahaja danaa wax ne kudul moom xalaatuma wax ci moom dara di ko tagg ndax tagg ku may Moustapha tagg wu réer la wu sànq daa sanaaun lam yakun madxa nabi id lam yakun li gayrihi min manqabi ku dul moom amoo daraje sax ju aaje ñu lay waxal benn baat madaxtu man maa in lahu mu jaari madaxa muhibbin tagg woo xam ne ànd ak cofeel gu rëy nag tam waaye loolu lépp it dara nekkulu ko ci woon lu may bëgg jëmmi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rek alayhi salatu wasalaam daani ila madxi nabi xubbu daatihi dana wax ne sama lépp itam du làmmiñ wi rek moo koy tagg sama lépp léppay maase di tagg Moustapha sallallahu alayhi wa sallam muhammadun salla alayhi llaahu yamdaxahu kulli kama alaahu madaxahu kulli bila istisnaayi li wajhi man bi bihi maa anaayi yubajjilu kulli kullaka al yowma maa gadin bor loo amewoon ci taggu yonente bi boo xam ni at mu ne da ko daa séddale juróom benn weer yi mu ci julli ci moom alayhi salaatu juróom benn weer yi muy tagg ci moom xasida yi tagg yi ay diwaan la yoo xam ni kenn xamul lu mu toll dana wax ne tagg yonent bi mooy samay wax matxun nabiyil muntaqa kalaami mooy samay wax dana wax ne mooy sama mazhab itam li xayri rabbi bin nabi lam adhabi wal matxu saara daydani wa madhabi dana wax ne mooy sama sariya itam matxuhu sharci wa aadaati dana wax ne mooy sama nguur mooy sama moomeel itam matxuka yaa xayral baraya mulki summa salaati alayka milki ci ay teggi nit la ko daa defee tafiqtu unaadi almustafa daata addubi te daw ci rax lenn lu dul lu sell xayyabtu andami an ilfuduli alyawma lillahi wa lirasuli daw tudd xësal bi arab yi def dawñu daw ko ci def muy dem rek mënoon nañu wax ci salaatu ala nabi itam lu bari ndax moom bindam ma nañ ne léppam salaatu ala nabi la dana wax ne yaa rasulan lahu udimu salaatan maa salaamin walan tazaala bahija damaa sax ci di di julli ci moom ndax xasida mu def wala téeréb xam-xam sax bu tuddee jëmmi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu julli ci moom ak lu tudd nga jege-jege loolu da ko koy seetlu ci biir xasida yi ma jeexale ko xam naa mel na jeexal naa nag waxtu wi jël naa ko waaye yàlla defal ko tawfeex ñi daal liggéeyal Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ñooñee yitteem ca njëlbeenam moo doon dab leen ci bi muy woote Euh, def ci moom lu tax tënk gi mu tënk boppam gi woote wi fi mu war a yegg ak woote wi nañ ko war a cuubee war ko ko couleuré lépp rek delluwaat ci yonent bi sallallahu alayhi wa euh, benn euh, ci turu turu yoon wi muridullah mu doon tur woo xam ne ñëpp ci xaj amul kenn ku mu ku mu ku mu fànq ñëpp ñu ngi ci biir tur yi tuddewu ko askanam comme ñu ko daa gisee ci tarixa yi eh, tuddewu ko dëkkam comme niñ ko daan gisee ci tarixa yi tuddewu ko ci lenn lu aju ci moom comme ni ñu ko daa fekkee ci yeneen i tarixa loolu du ayib ci tarixa yi dëgg la du ci ayib waaye nag wooteem xusuusi ya jacane gën a yaatu lépp nag ba lépp xaj ci looloo tax tur wi it ñëw ñëpp xaj ci lépp it xaj ci Eh, eh, muy doon misaalub lislaam lislaam na ca lépp xaje muridiya it lépp ca la lépp tak da caa xaj yonent yu njëkk ya seeni diine donte yàlla lislaam la ko mës a tudde waaye seeni ñooñ soppi nañu ko ba tuddee ko ay tur yoo xam ni eh, seeni maam comme yahuda ibnu yaqub ga ñu tudde yahudiya seeni dëkk comme isa dëkk ba mu yoroo ñu naan ko nasira ak yeneen ak yeneen tur yëpp dafa mujjee dellu delluwaay boo xam ni dafay wane particularité ca ca loola waaye dëgg la seen woote it woote bu particu bu particulier la xam ni àdduna yëpp taxu koo jóg du woote bu yàlla namm mu gunge àdduna ba àdduna di tukki woote yooya melul woon noonu ku gis seeni xaatabante ci alquran ni ko yàlla di nettalee ci ñoom même ci seeni téere boo demee ci ancien testament nga xam ni seen asfaar yooyu di juróom te yooyu wér ni moo bokkoon ci tawraat lu dul taxrifaane ci am comme sifrul takwin ak sifrul xuruj sifrul laawiyin sifrul adad sifrul tasniya yii yëpp da ngay fekk ni Moussa buy woote banu Israël la daa woo yëpp loola nga fay fekk banu Israël la daan woo yonent ya ji ya ko jiitu nga xam ni sifrul takwin yonent ñoom yonent yàlla nuux ak yooya eh, ñoom la soxal Euh, waaye la gën a soxal Moussa lu mel ni sifru sifru tasniya xam ni lépp rek ci Moussa la loola it da nga fay fekk ni Moussa Israël la daan waxal Isa la daan waxal yonent yëpp seeni xeet lañ daan waxal yaa qawmi yaa bani Israël nga daa dégg ci ñoom lu dul yonent yàlla Suleymaan xanaa ca ba muy wax yaa ayyuhan naasu ullimnaa te loola jottali woote taxu koo jóg wane lu ko yàlla jagleel ci ay xéewal di ko wan te yooyu aussi yàlla dafa ko jagleel mu mu nit ñëpp nag xam ni moom rek la ko jagleel walis nit ñëpp moo tax mu jëfandikoo foofu yaa ayyuhan naasu kon lislaam ñëpp dañ cee xaj yonent bi sallallahu alayhi wa musuta wax yaa ayyuhal arab musuta woo giiru bu bokk ci arab yi lu dul ci fatra bu gàtt ca ca jamono yi wa anzir ashirataka al aqrabin ca ba muy woo yaa bani woo banu hashim bani abdillah woo bani fihr ñoom ñëpp ci fatra yi wa andir ashirataka al aqrabin waaye ba mu gënee yaatu ci li tundira ummal qura wa man hawlaha gën a yaatu ci uh, ya ayyuha rasul wa ma arsalnaka illa kaafatan linnaasi booba la gëj a wax ya ayyuhal ya ayyuhal ci la gëj a woo ay arab ci la gëj a woo ay giir ay wooteem imma mu woo nit ñëpp wala mu teg ko ci ay melokaan ya ayyuhal ladina amanu ak ya ayyuhal ya ya ya ya ayyuhal kaafiruun yaa ayyuhal munaafiquun ñooña la daan woo ci ay melokaan nga gis sëñ bi gannaaw bi tur wi doonee tur wu lépp xaj ñépp xaj ci da ngay gis ni ci weneen wàll ay wootee mit noonu rek la daa demee sëñ Tuubaa woowut bawal bawal woowut jolof jolof ni kajoor kajoor ni saalum saalum waaye nit ñi la daan woo yaa ahla barri yaa ahla bahri ñëpp la doon woo lakin unaadi kullal ibaadi kullal bilaadi ñëpp la daan woo nga gis ci weneen wàll ci woote jëme ci ay melokaan yoo xam ni du raaf du dakk yaa machara shabab yi shubbaan yi la daan woo jëlub téere tudde ko tasawudu shubbaan képp kuy jeune ba keroog àdduna di tukki dugg nga ci wooteb Sëriñ Tuubaa boobu eh, yaa ayyuha sibyaanu la tashtaxilu ndaw ñi la daan woo képp ku doonu ndaw ba bis dugg nga ci wooteb Sëriñ Tuubaa boobu woo na la kon moom amul particularité ci wàllu wooteem kon jëmmalal na boppam ci li yàlla li ko yàlla yënkiwal jëmmalal na boppam ne wooteem wii kat bawal taxu koo jóg Sénégal taxu koo jóg Afrique taxu koo jóg waaye àdduna lépp a ko tax a jóg loola sëñ bi jëmmal na ko jëmmalal na ko boppam ci woo nit ñëpp waaye it ci woo ci woo it eh, eh, ci ay melokaan yoo xam ni fekk ak nit yi ngi am ci àdduna melokaan yooyu lay continuer di am muy ay ndaw ak i waxambaane dem na ci ba woo yahud yeeg nasaara yi comme ni ko sa bi sallallahu alayhi daan defee ci ndigalul suñu borom qul yaa ahlal kitaab yi yonent bi eh, Serigne Touba doon woo ahlal kitaab kon wàll woowu da nga ciy gis ni lépp rek da koo delloowaat ci xam xamle yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax nag mu jaddit la te mu jaddit nag dafay wooteem dafa war a doom doon xa man yu jaddidu lahu daawatahu waruñu am dara lu leen lu leen wuutale moo tax sëñ bi teg foofu sëñ bi teg foofu tànkam Euh, bu ñu xoolee ci yeneeni anam danañu gis sax ni euh, bari na nitu yàlla bu ñu masaa toll ci xaal daawuñu gis lu dul seen bopp seen bopp rek la ñuy gis seen bopp rek la ñuy waxal gis nañ fi nitub yàlla bu toll ci xaal ba ba di zikkare subhaani subhaani gis nañ ko mel ni Abu Yazid al Bistami yooyu yëpp gis nañ ko fi gis nañu fi nitu yàlla bu dem ba gisatul ne dara féete na ko kaw ku dul boppam gisatul dara ci kawam loolu yëpp gis nañ ko fi ba daan nañu réer sax yenn saay ci biir xaal boobu ba dugg ci wàllu wahdatul wujud ba dugg ci wàllu alxulul wal ittihaad yooyu yëpp daan na am ci ay jamono donte nag maaduroon am nañu ngànt ci ci ci noona ñu daa wootee waaye sëñ bi moom damay wax ni eh, xaal musu koo tërëfloo musuta am xaal ba tërëf ndax eh, dafa fees dell waaw loola dafay delluwaat ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci wooteem boobu moo tax xaal lu mu rëy rëy ci moom da daan gis rek ni ab jaamu yàlla la. Mhm. lu xaal rëy rëy rëy ci moom ndax bu fekkee ni safar gi ñuy màggal la ko sunu borom jagleel xam ni ca la yegge mën nañu ne topp ci ay mbiram ci weeru safar gii la ci tukkeem gi la tukkeem gi ba muy woy asiiru lu lu mu ca wax eh, ne jaamu bu yàlla la loola la doon bàkkoo ne jaamu bu yàlla la shuhuri wa ayaami gadan li shawahidu bi anni abdullahi wa huwa shahiru àdduna li ma def ci àdduna ci ay bis ak ay weer ak lépp rek lenn daal laay ndamoo mooy ni bis pénc danañ ma seedeel ni ab jaamu bu yàlla laa te sama gaa ñi fuñ mas a yeggee fu fa mu tolloon foofa xam ni yegg nañu ba dara dara dara mënatu leen féete kaw euh, euh, seen bopp rek lañ daal gis mhm. moo daa indi ñu daa wax lu leen sharia di condamné waaye sëñ bi musta wax lu ko sharia di condamné mhm. istiqaama gi mu amoon ak ak ak tawaasun gi mu amoon ci ci mën a taarjox bayna shariati wal xaqiqa loolu daanaka musu cee am moroom ci mm-hmm. wàllu woowu. kon yooyu yëpp day firndeel aalami yow eh, universalité bu bu wooteem gi nga xam ni moom la moom la doon wootee. Mm-hmm. Eh, beneen bi mooy eh, ci ci wàllu woowu ba tey Abdullahi googu mu daan mu daan bàkkoo mu doon bàkku boppam dafa am sirru bu rëy bu ci am mooy ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàllaa ko def bu yonent du du pastéefam du du du du loo xam ni da koo fàggu du farloo du góorgóorloo ma tax mu yegg ci yonent borom xam sax boo demee ci ibnu Xibbaan al Busri borom borom Sahih ibnu Xibbaan am nay jamono buuru jamono jooja wala fuqahaaw yëpp dëppoo nañu ci ne dañ koy takfiir ba yéefarloo ko te dara waralu ko woon lu dul benn kàddu bu mu waxoon ne an nubuwatu muktasaba ne nit mën naa góor góorlu ba doonu bu yonent ca jamono yonent loolu lañu lañu lañu lañu dégg ci waxam ba fatwaane yéefar la ba buur bëgg koo rey yàlla musal ko mu mujjee delluwaat ginnaaw ci wax jooja wala expliqué waat li mu namm ci wax jooja ibnu xibaan borom saxiix ibnu xibaan kon loolu la muy firndeel mooy am na bu wattu lay sat muk sa muktasar du lu góorgóorlu di maye kon du lu ñuy bàkkoo nag moo tax yéen mus ta bàkkoo ak ak nubuwaa risaala gi du ko bàkkoo nubuwa gi du ko bàkkoo waaye abdullahi gi la daan bàkkoo moom la gënoon a bëgg ndax fàggu téefam la moom sëriñ bi yi ko sunu borom defal ci ay jagleel ay jagle yoo xam ni eh, jagleel la duniya la daawu ko bàkkoo la mu doon bàkkoo mooy jaam gi mu doon jaam ndax lool loolu pasteefam la pasteefam la loom la loolu day delluwaat ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci tënk mbiram ci mbiru yonent bi sallallahu alayhi wa ba tey moom sëñ bi ci ni mu tënkee boppam ci yonent bi yonent yi ku ci nekk yàlla jox na la kawtéef jox na la mujisa buy tax say nit nga convaincre leen e, yenent bi sallallahu alayhi wa sallam sunu borom jox ko kaawteef e, bi mu convaincre nit ñi te mooy alquran kon bind la wax yu la ay mbind la moo xam ni mooy mujisa yenent bi gën a rëy ci li ko yàlla jox mooy alquran sëñ bi nag moom it boo gëstoo ci ay mbiram gis nga ni la muy la muy ndamoo di ko bàkkoo di ko wone ci ay kaawteefam la ko ci gën a soxal gën ko ci ñor mooy mooy ay mbindam mbindam bu bindee aras jaayu yooyu yëpp wax na ko ci ay mbindam eh, karaamati xattu yet yi mbindam karaamaam mooy mbindam te effectivement ku xam arab dëgg dëgg dëgg xam nga ni bindub sëñ bi karaama la bindub sëñ bi karaama la ndax nu mu binde rek noona moo gën ci nu ñu binde ca noona mu binde amul lu muy bind danga mën a wax ni baax na waaye mënoon naa gën a baax ni mu bindee yi gën a baax sax. ci misaal suma toogam ba jekk-jekk ni man man fan laa jóge fu ma jóge laaj la boo xam ne nii philosophe yëpp ñoo koy laaj ku nekk ak na nga koy tontoore su ma jekk-jekkoon laaj ne man lan laa fiy def te ku nekk na war nga ko nag ku nekk war ngaa jekk man lan laa def ci adduna bi ndax ku mënta tontu laaj boobu rek daanaka amoon na wax dëgg yàlla adduna bi amoon na ko njëriñ lu bare ba ku nekk war ngaa toog ba yàgg nga ne man lan laay def ci àddina bi ku nekk doon ngaa toog moom yàgg ngeen man bu ma jógee ci at fan laa jëm yooyu ay question la yoo xam ne nii àddina ba mu sosoo ba léegi doomu aadama daf koy posé te ku nekk nag ji ko jéem a tontu sa bopp ak question yooyu nag wala laaj yooyu nag mooy laaj yi ëpp solo ci nga xam ne nii mbiram philosophie daf koy gëstu kon bu ñoo wax philosophie mooy liy gëstu li am dëgg-dëgg lan la lu mu doon ak nu mel ci biir falsafa nag wala ci philosophie dañuy gëm lu gëm li ñu gëm mooy nit ku nekk lépp lu muy def am na xalaat bu ko lal bépp pratique boo gis doomu aadama du ko def am na xalaat bu ne ca gannaaw loola ngay pratique moo tax ngir nga mën a soppi nit wala ngay mën a def ci moom lenn il faut nga xam doxalin wa muy doxe ban xalaat moo ko lal bu ko defee boo soppee xalaat ba ko lal rek doxalin wa day daal di soppi suñ ne woon tey Sénégal day bopp sa bopp dafay bari lool maanaam ku nekk sa bopp rek la yittee loolu am na xalaat bu ko lal xalaat bu ko lal mooy xalaatu njariñ loo fekk bu nu fexewoon ba nit ñi gëmatuñ njariñ loo fekk rek bopp sa bopp gi daal di dañ kon falsafa gëm ne nit ki lu muy def lu nekk rek am na xalaat bu ko lal te boo bëggee soppandiku ci nit ki fexeel ba xam xalaat bi lal la muy doxe bu ko defee boo ko sottee doxalinam day daal di mën a sotti kon loolu ci tënk xeetu gëstu yu mel noonu moom la philosophie di jéem a gëstu di ko jéem a leeral mu am ay pàcc yu bari moom tam yoo xam ne nii daf koy gëstu am na philosophie boo xam ne nii ci wàllu diine lay gëstu am boo xam ne nii ci wàllu science lay gëstu am boo xam ci wàllu histoire ci lay gëstu am boo xam ci wàllu bu nekk maanaam xeetu xam-xam bu nekk dafa am philosophie boo xam ne nii maanaam pàcc boo xam ne nii moom lañ ko cee jagleel biñ ci jël tey nag te mooy philosophie bi gëstu ci wàllu yar wala boog philosophie de l'éducation buñ ko waxee mooy nu ñuy jéem a àgge ci nit ki ci boppam fondation am la ko lal nga xam ne bépp action booy def dem jëm ci wàllu yar ceeb la war a reposé wu fondation boobu lu mu doon nature doomu aadama ci boppam kon lan la nature doomu aadama boo ko xamee wala boog na nga ko déggee yow système éducatif ba ngay teg ca nature boobee ci lay sukkandiku moo tax nit ñi wuute ci dafa am ñoox xam dañoo gëm ni nature doomu aadama matière la physique la maanaam loo xam ne nga koy làmb daj ko wala nga ko mën koo xool gis ko loolu mooy nature doomu aadama am ñoo xam dañoo ko déedéet nature doomu aadama ruux la maanaam loo xam ne nii mënoo koo xool gis ko mënoo ko làmb dëj ko waaye da nga yëg ne mu ngi fi am ñu ne nature doomu ñaar yëpp la am na loo xam da nga koy làmb di ko am loo xam ne nii doo ko làmb ko waaye da nga yëg ne mi ngi fi te mooy ruux ku ci nekk nag nature boobu nga gis sa système éducatif ba ngay teg foofa lay màcc jëm boo xoolee ñi ci ay matérialiste nga xam ne ñoom matériel la lépp dañoo gëm ne àdduna lépp lu fi nekk matériel la maanaam cosaanu yëf yi matière la ñi ci gën a siiw di occidentaux yi nga xam ne ñoom la ñuy dund jamono ji ak seen maam yu jiitu ya ñeen ci seen maam yu jiitu woon boo gisee ñoom seen système éducatif day yittewoo ci matière nit ki en tant que doomu aadama jëm danañ ko defar ba mu baax situation yëpp nga xam ne dañ koy mën làmb di ko daj dañ koy defar ba mu baax waaye nag ruux gi la ñuy fàtte parce que dañuy jàpp ni ruux amul njariñ moo tax boo ko demee dara manqué wul ba mu des rek maanaam spiritualité moom lañ amul moo leen manqué parce que gëmuñ ne loolu lu am solo kon ñoom dañoo gëm nit matière la comme matière yëpp kon la ñuy defaree matière lu ñu ko defaree daal day jag fekk na am na lu ñu am nag ñoo xam ne ni itam dañoo ëppal ci wàllu spiritualité maanaam wàllu ruux ba jàpp ne ñoom doom matière amul njariñ ñooñu nga gis bu ñuy defar nit ki. dañuy jël ruux gi defar ko ba mu sell lool waaye dañuy sàggane yaram wi lool mooy waral nga gis ku baax ñi nga xam dañoo sell lool lool lool ñaari seen yaram day tuuti ba liggéey yi baree bari duñ ko mën parce que dañuy defar ruux gi ba mu baax bàyyi yaram wi loolu dem yenn la ci xeetu ëppal yi xam ngeen am na ci ñenn ñoo demoon nañ ba gëm ne yaram wi kasal kasal boo xam ne nii day tëj ruux gi ba du mën a boy départ dem fi mu bëgg a dem moo tax ñu ne kon nañ effacé yaram wi ba dootu am bu ko defee ruux gi moo mën a départ jëm ca kaw moo tax ñu daan teg seen bopp coono yoo xam ne nii jéggi na dayo te loolu yàgg na fi boo demee Inde ci diine yu njëkk yi am na ci diine yoo xam ne nii boo fa masaan àgg li ñuy wax mabda'ul urji wal intixaar ngay def daraja ju kawe wala ci ñoom maanaam boo ci àggee da ngay summi ko bi def yaramu neen dem toog jant bi mu lakk ba nga faatu loolu daraja ju kawee loolu ci ñoom ndax ñoom mooy tegtal ne yow sa yaram wi amatoo ci soxla da gis ñoo xam ne ni seen cër yi leen yàlla jox yi ñu war a yokke seenu askan dañ koy rey dañuy jël yu mag yu maanaam yu méttee mit di ko ci dóor ngir faagaagal ko ngir jàpp nañoom ñoom loolu gàllankoor kon ëppal ci wàllu ruuxaaniya spiritualité tam day am jur kon boo jàppee nit ki matière kese la ba tax nga tëral noonu rek système bi boo faale ruux da ngay indi ay njuumte waaye itam bu fekkee da ngaa jàpp nit ki ruux rek la maanaam maanaam yëg-yëgu biir rek la ba fàtte yaram wi ba tey nit ki day manqué ñi nga xam nag ñoo ne ci digg doomu bi mooy ñi gëm ne nit yaram la ak ruux kon ñaar yëpp yàlla moo bind nit mooñ ko jox ko yaram jox ko ruux ñooñu nag Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu ci ñooñu la bokk mooy ñi nga xam dañuy defar yaram ba mu mel ni mu war a mel waaye defar ruux ba mu mel ni mel moo tax kenn ci ñoom ba mu koy tàgg daf ne rabba xuluubana wa ajsaamana fa kullu saafin wa naam nee na dafa defar suñuy yaram ba mu rafet ba mu na tax defar ba mu na tax ba ku gis xemmem ni moo tax murit mën naa am kàttanu yaram lool lool lool lu mu bëgg a def mën koo def waaye bu jëfee da nga xam ne kii ruuxaaniya moo koy jiital dana am alal ju baree bari am àddina ba mu mat sëkk waaye nag bu doxalee nga xam ne kii ruuxam defar nañ mooy ci misaal mën ngaa ñëw fekk bu nekk luxe bu mat sëkk boo xam ne nii lépp luy luxe ci àdduna rek boo ko gisee da nga fekk ci moom waaye jëmm ji bu ne tëll boo jëflante moom xam ne kii luxe bi jumtukaay la ko def waaye def ko maanaam ab def ko finalité maanaam dox ko jóg loolu mooy ku ñu defar ci wàllu ruux ak ci wàllu yaram kon nit danuy jàpp ne kon dafa am yaram am ruux te ñaar yëpp lañu war a defar boo ci defar bàyyi moroom ja rek da ngay indi nit koo xam ne nii du doon nit ku mat kon système éducatif yi foofu la ñuy wuutee te loolu mooy laytaay li ñuy wax philosophie boo xam dafa jëm ci wàllu éducation ba tey tam ci philosophie ci wàllu éducation dañ ci déggee objectif bi tax ngay yar nit ki il faut nga xalaat ko ma nit ki fa ban façon nit laa bëgg a su ma ko xamee ba pare nag yan jumtukaay laay jëfandikoo ngir indi nit kooku nga xam ne moom laa bëgg a indi loolu tam ba day feeñaat ci falsafatu tarbiya kon sëriñ bi nag buñ doon xool moom philosophie ci wàllu éducation dafay tënku rek ci mu teg définir benn cadre boo xam ne nii ci lay jaar ba indi nit ki nga xam ne ni royteef lay doon ci fànn yëpp royteef lay doon ci fànn yëpp boo demee moom boo demee moom ci jaamu yàlla ci déggin wu xat wi mu man la ci fuuf boo demee moom ci jàmm yàlla ci déggin wu yaatu wi mu mën la ci fuuf mooy nit koo xam ne nii bu ngeen demee ci julleeg woor rek moo la ci mën fuuf waaye bu ngeen demee ci production ci wàllu économiquement moo la ciy mën fuuf Sëriñ Tuubaa da nga gis mu indi nit koo xam ne nii ci tasawuf day teg tànk ci àdduna teg tànk ci àllaaxira te benn du ci màgg ñi ko jiitu woon daan woote ci mbirum tasawuf dañu daan teg seen tànk ci àllaaxira ba fàtte seen adduna moo tax ci sarax lañu daan dund sarax ci lañ daan dañ daan dund ba desal rek jox leen moo tax Omar mas leen fekk jàkka ji nit ñi ñooy ñan ñu ne ko ñii de ñooy ñi nga xam dañoo dogu bàyyi lépp ne ñoom dañuy jaamu yàlla Omar ni waaw kan moo leen dundal ñu ne ko ñun ñëpp ñoo leen dundal mu ne kon yéen ñëpp leen gën parce que nit tam dafa war a liggéey liggéey ci jaamu yàlla la bokk ci déggin wu yaatu moo tax sëñ bi mag ñim yar da nga ciy gis lu mel noonu bu baax a kon déclaration Mbàkke Kajoor bii sëñ bi doon waxtaane léegi te mooy rabbi asxaabaka bil himma wala turabbihim bi dars faqat loolu mooy tënk falsafatu idi maanaam maanaam philosophie éducation bu sëñ bi da dee laam mooy nit ki nga defar ko ba pëstéefam ma am yitte ju kawe ku la raw ci yitte ju kawe la rawe ku la ci àdduna rek ci yitte ju kawe ci la la rawe ku la rawe ci àllaaxira tam ci yitte ju kawe ci la la rawe tey boo xoolee ñun ñu ñu raw ci wàllu àdduna ñoom yitte ji ñu jox àdduna ñun joxuñ ko àdduna ñoom moom lekk maanaam añ du leen du tee du leen tee liggéey reer du leen tee liggéey ndekk du leen tee liggéey maanaam yooyu du leen gaare nga xool ñun boo doon liggéey tey fas nga yéene fu muy di jotee nga wàcc dem añi da nga bu muy di jotee nga wàcc dem nga day mel ne sa gis ñoom ni ñuy teel a xëy guddee wàcc ñun ni ñuy naajee xëy di teel a wàcc loolu nga gis ne kon li ñu rawe yitte ju kawe la ñoom lañ leen yitteel dañ caa def pastéef am ci loo xam kenn am mu baaxee ci àdduna noonu la baaxee ci wàllum ruuxaan yi moo tax nag jàngal nit ki kese wala turabbihim bi dars faqat bu li jàng bu li yar nit ñi ci jàngal leen dong dong ji nag am na solo léeg sax nga déggoon la faqat bokku ci waaye même bu ci bu ko indi doon ci bi tam da nga koy ci biir bi ndax nit ki mënoo koo defar ba mel ni war a mel te xamaloo ko dara kon waaye nit mënoo koo boo ko defaree te xamaloo ko dara tam ba tey xëy na daan ci ñëw njuumte la ci misaal tey. bu fekkee da ngaa jàngal nit te yaroo bu defaroo ko lu yàqu ci àddina ba yoo nga jàpp na yaa ko yàq ndax luñ gis mu yàqu ci àddina boroom xam-xam bu ñu yarul moo ko def waaye tam nit ki boo ko defaree ba mel ni war mel te jàngaloo ko dara maanaam xeetu maanaam xeetu kii ngay defar maanaam daal nit koo xam ne daal wax dëgg yàlla ku ko ci bëgg a jëfandikoo da nga koy mën a jëfandikoo soo noppee teg fa keneen jëfandikoo teg fa noonu lay demee ma nga xam ne moom du am kii loolu lool kon nit ki da koy yar da koy defar jàngal ko jàngal ko defar kon loolu moo doon philosophie sëñ bi ci wàllum éducation mooy koo xam ne nii dañ koy jàngal ba mu xam li mu war a xam waaye defar ko ba mu mel ni mu war a mel ba koo gis xamee ko mu am nag ay objectifs yoo xam ne ni sëñ bi daf koo teg ci bi muy teg méthode buñ koy wax ni ay jubluwaay la yoo xam day mel ne wàllu ruux rek ko tax a jóg waaye danañ gis loolu bu nekkee ci nit ki naka la mën a influencer ci dundam. bu sëñ bi bindee ne tariquhum xasdu wajhillaahi duna hawan nee na ki may defar li ko tax a jóg mooy mu jublu yàlla rek te bànneex du ko téye koo xam ne ni yàlla rek lay xool lépp lu muy def yàlla dong la ciy xool bànneexu ba kanam mënu koo gàllankoor ci lenn loolu fi ne bu ñu ko amoon tey ci suñu dundin yi bu nekkoon sa ruux dëgg-dëgg day feeñ ci say cër dañ ko gën a leer ci kanam te tey bu ñu demoon ba ku nekk la ngay def seetoo ci lenn lu dul yàlla adduna bi dana di jàpp maanaam lu baree bari mi ngi yàqu kon nit ñi li dañuy bàyyi xel leneen loolu yàlla waaye su fekkoon li ngay def lépp yàlla doo nga ci bàyyi xel dara dootu yàqu mu teg ke zuhdu ne la àdduna danga koy wan gannaaw zuhdu bi ñuy wax fii nag maanaam bokku tëg nga xañ sa bopp àdduna waaye da ngay am àdduna ba noppi nanga koo def ci yoonu yàlla te du la yàqal boog sa digganteeg li nga war def ci beneen yoon bëgg àdduna tam defe naa ne si ahmad ñoom daañu koy faral jàng lu bari bari mooy ne rasu ko lu xat ya yonent bi jàngale ko nee na bëgg àdduna mooy ñaawteef yëpp bu ñu doon jëmm bëgg àdduna mooy bopp bi te baraana luy yàq luy gàllankoor nit ci dund gi itam bëgg àdduna moo koy moo koy indi baraana luy gàllankoor suñu diggante itam bëgg àdduna moo ko def ci suñu biir kon bu ñu fexewoon ba nit ñi àdduna boobu ñu génne ko seen xol donte ñu ngi koy dund nag waaye du leen moom waaye ñoom ñoo koy moom loolu defe naa ne bu ñu ko amoon ba tey ci ruuxaan yi ci lay feeñe waaye day feeñ ci dund yu nu askan moo tax wasootu fi kulli faanin baax doxu warax warax warax mooy sàmm sàmm mooy maanaam yow lépp looy def nga gis loo xam ne nii sax mën nga koo def te dara du la ci fekk nga bañ koo def ngir jàpp ne su ma ko defee mën na maa jural loo xam ko def te dara dama ci fekk maanaam loolu mooy sàmm ci misaal tey ñun ne lii dagan na la nga cee lekk ba suur mën nga cee naan ba màndi waaye ngeen su ma lekkee ba suur naan ba màndi man na maa dugal ci bànneexu bakkan bànneexu bakkan man maa dugal ci yeneen yoo xam ne nii damay jural leneen kon naa lekk tuuti di naan tuuti sàmm day feeñ ci fu bareer sàmm googu nag bu amoon tey ci nit ñi dëgg dëgg dëgg dëgg alal dootu la jiital alal ji lu mu bari bari bu la wóoree ne moomoo ko doo ko jëfandikoo alal ji nga moom sax mu leew la doom doo ko jëfandikoo lépp ndax da sàmm da ngay sàmm kon loolu tam ba tey gis ne jikko la joo xam ne nii ci wàllu ruux lay nekk waaye dafa mën a feeñ lool ci ci ci ci ci ci dundinu nit ñi jihaad nafs mooy nga xeex ak sa bakkan mooy nga mooy xeex ak sa bakkan moom sa bakkan loolu tam def naa ne jëruñu ci sori topp bakkan wala sax daf koy wax diw dafa topp bakkanam bu ñu xasee ba diw dafa topp bakkanam rek mooy diw melut na mu war a mel kon nga gis ne kon bakkan boo ko toppee ni mu lay yàqale sa diggante ak yàlla noonu la lay yàqal sa diggante ak àdduna shukrun bil qada maanaam mooy lu yàlla dogal mu neex la ànd ak rida rida mooy nga am satisfaction ci li li nga ni mbir mi ni mu dem tey nun ñëpp fekkonte tey ku nekk na la yàlla bind neex na la kon problème daal waaye bari na kuy jalgati koo xam ne day mel ni ne ko yàlla binde moo ko neexu lu tax nit di xeesal lu tax nit di agressé nit di jël pour pourtant bu fekkee yàlla daf laa bind waroo bind la koo xam ne xëy na waroo nekk nit ku woomal bu fekkonte loolu neex na yow doo jël alal jàmbur ngir woomal su la yàlla bindee nga ñuul su fekkante ne na la yàlla bind neex na doo soppi dara bi di xeesal su fekkee yàlla dafa laa bind sa kawar gi nekk kawar bu gàtt su fekkee ne la yàlla bind neex na la doo meesu maanaam tàmbali teg jalon yi mu leer ñun ñëpp ñu dëppoo ci da ciy baax bi ci njëkk mooy sëriñ Mamoor Mbàkke xam bi moom lañu féetale woon waxtaan mu fexe ba Euh, sëf ma ko sëñ Maam itam damay expliquer mu leer li tax mu def ko du caagi ne maanaam man dama ci bind déedéet xam nga sëñ Maam dafa baax dafa am lu mu bindoon yàgg na ginnaaw bi moom la bind bosam génn bëgg na maa tasaare ci yoonu loolu rek du leen waaw yàlla yàlla fay ku nekk rek ndax yoonu sëñ Tuubaa yaatu na ku nekk xaj na ci euh, kon dama yore kayit bari waaye incha allahu taala du yàgg ndax fan yi wax dëgg yàlla taxul ma sawar lool tomb bu mel nii sëñ Alaaji tudd na ko maanaam niñ ko niñ ko siyaaraa niñ ko dëggee ci baati arab yi dafa adab yi maanaam dafa littéraire bi mbaa du kawe bu dafa dafa littéraire maanaam day loo xam ne ku ko miinu léeg-léeg mën ngaa jàpp ne xayaal bi wala imaginaire bi da ci ëpp doole euh, factuel maanaam li xew day it loo xam ne ci niñ ko gisee ñun weneen yoon la ngir gaaral njàngaleem sëriñ bi ak wooteem moo tax loolu ma en tout cas loolu moo ba tax ma amoon benn mashruwa bu bu mu tëddoon ala athaaril qawm xëy na moom la sëñ sëñ Mamoor di junj maanaam ak qawm mooy ñu njëkk a topp sëriñ bi jaayante moom ci sopp ak wóolu ngir yàlla goo xam ne nag li koy laytaay te di ko dëggal mooy jëfe ndigal te bàyyi tere kon damay teel leeral rek am na ci ñoo xam suñ ko déggee dañuy yaakaar ne daanaka film la daal kon su suñ jàppee ne film la itam nañ jàpp ne loolu comme yaa ngi tudd ay film am na ñoom lu ñuy wax true story true story mooy histoire histoire réelle maanaam loo xam ne xewoon na ba noppi ñu di ko nataal teewul nag ñun tomb bi ñuy waxtaane maanaam xëyaal xaju ci imagi imagination du ci xaj lool waaye nag ndem dugg nañ ci adab rek su boobaa day bees day am solo itam teewul na li ëpp solo ci tomb bi jaangi bu roox bi la loo loo xam ne mën naa fekk si sëñ Fallou Bousso Assane ci li ñu doon waxtaane léegi lan mooy jaangi bu roox yi bi maanaam dimension spirituelle bi ci am mooy Sëriñ Tuubaa dañuy waxtaane muy mu jot lu qarni rabi achar ci sunu côté bi nga xam ne amul wala boog ñu gën nañu ko sikk ñu muy jëmm joo xam ne jàpp nañ ne influence bi mu am ci histoire Afrique occidentale kenn amu ci bu toll noonu ci li yaakaar ci anam yu bare bari daal ci wàllum diine ji ci wàllum xam-xam bi ci wàllum bañ bi ak anam yu bare bari yoo xam ne yaakaar naa ne su ma ko junjee nit ñi dañ ko xam te li ko waral mooy jokk gi mu jokk ci yonent bi sallallahu alayhi ak gëm gi mu gëm dignité humaine maanaam doomu aadama ak karaama bi ko yàlla defal loolu sax day ngay gis ne am na ñoo xam ne maanaam ci cosaan wala ci suñu déggiin mënuñu leen jàppee ay murit ay intellectuel la ñoo xam ne ñi ay gauchiste lañ ñi ay marxiste léniniste lañ waaye teewul ñoom dañuy delluwaat ci sëriñ bi ndax am na symbole bu mu leen di jox ci wàllum résistance am na lu mu leen di lu mu gis ne def na ko ci yëkkati der bu ñuul ak ci wolof ak ci sénégalais nga xam ne loolu lépp dana tax kon ñun suñu waxtaan tey jii dana dana am solo lool am na ñoo xam dañu jàpp ne droit de l'homme surtout wax homme nag maanaam yelleefu doomu aadama rawatina doomu aadama ji nga xam ne africain la rawatina yi nag ñi nga xam ne dañu leen a xaw a néewal doole dañ ci gis Serigne tubaab mu def ci loo xam ne danañ ca dellu doonte bokk ñoom ñoom sax gëm-gëm loolu moo tax tomb bi yaakaar naa ne dana am solo lool waaye tomb bi nag ak photo dong la maanaam ñun jëluñu jaanib mawduu bi ci sëriñ bi ci jasara léegi masalan nañu delluwaat ci li mu ko waxee tasawar jalasaati cheikh alxadimi wa ka annaka aayantahu wala jalasahu mbaa duñ ko mën a tuddee kon ñun ci wolof comme que da ngaa bëgg adab nañ ne eh sëñ nga ne jeex na lii donc la ñuy waxtaanee ñun sëñ Tuubaa nga ne le loolu itam nur la lu jafe mais jafewul maanaam sëñ Tuubaa ci dëmm dañuy wax la xëy na am na lu baree bari suñ koy tudd dana am lu muy jox kool ci am njàngaleem dana ci bari ndax toogaayu sëñ Tuubaa am njàngale la dox gi mu dox am njàngale la col yi nam ak njàngale la xool nam am njàngale la ndax yàlla ko dimbali ci ay aadaatam dafa doon ay ibaadaat ndax loolu maanaam moom noonu la ko noo noonu la ci jublu loolu la ci yéen ma ne kon du jafe lu tax du jafe mooy dañoo am mag ñi ñi jamonoonte ak ñoom melal ñu sëriñ Tuubaa melal bu leer nañ ba nga xam ne jàpp naa ne képp kenn ci ñun su taxawoon sëriñ Tuubaa fii ci mbedd mi ak doonte loolu yombul su tasaaroo ak sëñ Tuubaa fii ci mbedd mi dana xam ne kii sëñ Tuubaa la du ko jaawale kon ci ñun suñu maraajo yi lii lay doon njuum njaag ak jazaa'u shakur muy maam sëñ Moussa mu baax ma rahmatullahi alayhi sëñ Mouhamadou Bachir ci ci Minanul <coughs> Nadim ak lenn ci li ñu dégg ci mag ñi nga xam ne nettali nañu yenn ci jataayu sëriñ bi foofu itam du ma rus du ma ragal a wax ne du jaagi ne nettali bu ma dégg bu nekk danaa ko nettaliwaat man damaa am samay xawaay sama ay ay xam ne moom laay sukkandikoo ci nettali bu ñu ci sëriñ bokk na bi ci njëkk lépp lu wuuteeg zahiru shara rek man dama koy def fële fi ne wut ne dama koy wedd la waaye man du ma ko nettali fenn ndax dañ ci am yeneen yu doy sëkk yoo xam ne mën naa mottali wala mën naa nëbb loolu mu mën léegi su ma nee euh, comme Sëriñ Tuubaa nga ne xam nga ba euh, ishaara lil bu'd la comme que dañoo dugg ci littérature ma nga ne waxuma mi ngi nii lu ko waral Sëriñ Tuubaa dafa wax ci bi muy firi euh, alif laam miim zaalikal kitaabu dane xam nga ñu ñëpp xam nañ ne laam gi bu'd lay firi maanaam zaalikal kitaab boo gën téere te sëñ Tuubaa nee na téere baa ngi nii teew ci arab yi ñu di ko jàng fu mu toll lan moo tax ñu jëfandikoo ne bële mu ne ndax maanaa yi dafa sori moo tax mu firee ko laa yamassuhu illa al-mutahharuna mu ne laa yazuqu xalaawatahu illa al-mutahharuna mooy ñi nga xam dañoo laaba seen xol ba dara lu noonu du ci du ci kon su juróom dugg damaa junj léegi ne sëriñ bi ci jotaay yooyu bala ngaa wax jotaay jëmm ji lépp am njàngale la lépp am njàngale la maanaam jëmm ji toog rek te waxu mbaa ma ngay dox di dem mbaa ma ngay toog di bind waxaguma laa nag nit ñi wër ko mu fekk ko ci xaalatul jalaal wala jamaal ci xabbu wala basu bu mu ci mën doon bu nekk ay ay ay bind yu am solo la yoo xam ne jërul jàng warum tasawur ngir xam ko maanaam dafa leer ndax Sëñ Tuubaa dina wax ak kon fi ñu tàmbalee foofu mooy dama waxoon ne li ëpp ci damay sukkandiku ndax melaw jëmm ji dañuy jël jàngat ci euh, risaala bi ñuy joxe fi may tàmbali mooy baytu sëñ Moussa Ka bi wax ci njuur njaay dafa wax ne sëriñ bee ko nuroog Moustapha ba cib móol sëriñ bee ko nuroog Moustapha ba cib móol maanaam sëriñ Tuubaa ni muy ni mu ni mu nuru yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa léegi nag dafa ne moo nuroog Moustapha ba ci mool gi mooy nuru na ko ci leneen maanaam nuru la ko ci jikko da koo nuru ci jikko ba far ko nuru ci bind mool bi mooy bind yaram bi loolu itam lu simple la dana feeñ ci biir xasida gi waaye la ko jiitu tuuti da ngay dégg mu naan firim jës bu ba lam wax danaa ko ñambaas ba ngeen xam ne sëriñ Bamba laa di rambaas maanaam mooy sëñ Tuubaa la mu melalee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ci jazbul qulub mooy ba mu commencé yaa mulhiman quluub fawqa salli ala man xuliqa man salli ala man xuliqa waaw wal xalqa faaqa xuluqa kal xalqi wal tusallim commencé qad kaana daa tawasuti fi qad rijaali sututi wa lam yakun bi mufrati wa lam yakun bi aadami ba ca mujj ga kaana bi urdin al ajwa ashnabu falaju wa ashkalu mumtahiju wal wajhu maaxil umami daal bi shay'in maanaam su suñ suñ musaaga ne prime jës bu ma moom mu lay ñambaas maanaam boobu day màndargaal sëñ Tuubaa li mu nuru yonante bi sallallahu alayhi waaye bokk na ci li ci gën a yéeme mooy junj yi nga xam ne dafay wone sëriñ bi ni nga xamante ni noonu la fonke woon sunna ak noonu la toppe woon euh, njàng alxuraan ak ni mu ko déggee benn bokk na ci gën a wane gi mu wane woyof gi sëñ bi ak laabiir gi mu laabiir ak man gi mën a jàngale ak fit bi mu yor ba nga xam ne maanaam situation du ko dépassé am na fi waxee na fitam waa ka gën a rëy mel ne abdu jàmba amul soxla ci capitaine wala ci capitaine wala fi soldat waaye dañu ko ci benn ci xar kanam bi dañuy muy leer muhayyaahu kabadrin ne laan ne ma may ko téeméer am na fu mu naan te xar ba mu ngi niroog magum weer benn ko ci gët yi wax na ne du lam euh, gëddëm yaa gën a rëy du da dafa xam ne du wax du dox du geesoo sëñ Bàmba du geesoo gëtam da daa xool foofu euh, su ma jumul euh, yoon saasam sëñ Tuubaa wax na ko ci ci jëlbul xurub nga xam ne ah, xadis yu bari bari sax ñëw di nga xam yoon saasam daawul geesu su demee ba ñu soxla ko maanaam su naree geesu day wëlbati ko day wëlbati yaram wi yëpp euh, sëñ Moussa Ka yaakaar naa ci gis askan ma ne i taxa taxtil muy taxaw si waaxu te taxti koo taxaw ne wéy ne wéy la baaxoo kon muy gët yi fii mu wax ne te nuuru bakkan ya makkanam yaa ngi ci nuuru bakkanam i nuroo gors naar mooy li sëñ Tuubaa di wax ci ci yéen saa sallam naan ilmihi du chamam sa gaay dina gàttay na muy jatteeg maar te baat ba dana collet ba tiimi lax yaa kaana yaqulu kulla man maa shaahu fi kulli fi kulli zaman waaye fi ne loolu nag dafa am maanaam loo xam ne xëy na ñun ñëpp danañ ko bàyyi xel mooy ba muy tàmm dane ma way am nañu ne ma kañ ndaama la gàttoon te gétti waa xëy na ndaama la rek moo ma ci foofu ci kanam tuuti naan rëyul tuuti loon gàtt loon ba diw loon maanaam kon du gàtt gi tax ñuy waat gàtt daal li ñuy wax rab ayul xaama lay doon mooy digg yi nit bu daaree du ko kekkul dadaa saxoo moom loolu itam euh, beneen njàngat la dana firi ak woyof mu ne baxkuhu bi tanaayaahu man li ma gis ñu bari bari shahru lay laa lay bind man nag li ma gën a jot mooy saxru lay laa lay doon loolu laa gën a jot aw siraaju galaamin anaara layla maanaam eh, ci eh, teggin yi mu am ba xàqtaa du ko def benn yoon suy lu muy def mooy day moom te ci itam muuñ bu simple lay def gu gu rafet ndog ñu ne dadaa muur di yor yetti kaala yooyu joor rawaan yaa ngi ko daa féete wàllu nday joor su muuraay gën a lam sët fikki mbale laas di saf wurus moo ko jekk ay faas muy ni muy muuroon yi xëy na ñett yi mag ñi nee nañ ci mujj gi de waaye daal mu dem ci géej gi defe noonu comme muur gi ba nga xam ba mu des lii nii am na li ci am solo du loolu waaye mooy li ma doon dugg ci eh, ci sunna gi ak yu mel noonu su muuraay gën mel xet sikkim ba ne laas di saf laari wurus kon sikkim bu gudd la yoroon faas yi te leerug yaram wa tax na cër ya xeereer dadaa jolli ci baatin ba sàkki ceeñeer am na ñoo xam ne naan ba sàcci ceeñeer ceeñeer waaye bind ba sàkki ceeñeer la yoon ceeñeer lañ ci bind am muy mooy tam euh, noonu euh, ci biir su loolu jàllee suñ doon wax kon portrait bi ni ko dugg doomu la ku ñuul la jëm ci xeereer euh, nit ku am nutati ku xar kanam gu leer la kuy xool xool bu sell te du xullee comme nu mel noonu waaye kuy wax itam wax ju leer ndax dafa wax léegi gudd bëri wax ju leer te du gëdd li gën a lu yéeme nee bi su ma saa toog jëralu ko sonn ci suy wax am ñu sori du yëkkati kàddu maanaam du yuuxu daal daanaka la la bëgg a wax man la muy wax day leer naññ kii ci wetam dana ko dégg te du ko tànqal kees sori itam dana ko déggal te du yóolu ngir di ko dégg dana ko dégg te ko yóolu am loolu itam ci euh, kii la bokk ci xarbaax yi nga xam ne suñu borom subhanahu ko ko jox aada nag mën na nekk loo xam ne fii la juddoo walla am na ca lu waaye am na ci loo xam ne it lu bàyyi ko ci bitti ñëw rax ca dolli ca moo xam lu ñu jëli la wala loo xam ne e, lu ñu jóge ci biti àndaale la kooku mooy aada léegi nag boo ko boolee toujours ci culture boo gis bu nekk saqaafu benn bu nekk ñaar yooyu lay boole muy loo xam ne kon mooy liy màndargaal di ràññale diggante ab société muy aw xeet ak moroomu xeetam nga mën a xàmmee sénégalais bi ak keneen ku dul Sénégal waaye ci biir réew mi itam mën naa ràññale diggante ab gox ak beneen gox ki dëkkee ci gote Casamance wala ki dëkkee Saalum wala ki dëkkee Bawol kenn ku nekk mën nga am sa propre culture muy sa saqaafa boo xam ne tey ci wàll yi nga xam ne moom la sa saxaafa ëmb lépp te mooy ci sa col ak saw dëkkiin ak saw dëkkuwaay ba ci sag lekk ak sa fot ak na nga koy lekke ak lépp loo xam ne lu aju sa dund muy saw xew sa ngénte sa céet ak sa yeneen cérémonie yi nga xam ne walla événement yi nga xam ne da koy organiser nanga koy dundale loolu lépp dafay dugg ci wàllu culture loo xam ne tey nit ñi mën nañoo bekku mel réew waaye gox benn bu nekk na koy defee ak na ko sa morom di defee du bokk loolu moo waral tey bu ñuy bindi andi lu ñuy tudde al maharajaan al saqaafi muy benn foire boo xam ne dañ cey wane culture Sénégal tey bu ñu wooyee raison yëpp raison bu nekk bu ñu ñëwee da ngay indaale la nga xam ne moo la identifier teqale la ak ñeneen ci sa col raison bu nekk col ga ndot bu ñëwee moom ngay indaale bu ñëwee dañuy exposé xeeti lekk yañ baaxoo lekk ak xeeti naan yañ baaxoo naan ak activité économique wala socio économique yañ ñuy def yëpp jumtukaay yañ koy defee loolu mooy dañuy identifier mais buñ boolee lépp nag mu nekk culture Sénégal bu dee ci wàllu diine nag ca la aada di faral di wàlli see jëlal rek tey e, diine buy ñëw toujours fu mu juddoo moo xam diine yi asamaaw yépp buy ñëw toujours dafay àndaale aada parce que dafay dafay taasur ci aada yi fam fa diine ja wàcc moo waral nga gis fii tey ci senegal ñi nga xam ne ci diine catholique la ñu nekk tey culture culture européen la ñu yor ci seenu col ak seenu lekkin ak seeni parce que foofa la leen diine ji bàyyi ko te bi muy ñëw dafa àndaale aada ak culture booba islam it la même chose moom it bi muy juddu gannaaw li nga xam ne mooy texte bi nga xam ne mooy alxuraan ak sunna lam fekkan naar ya nekk jasiiru arabe doon dunde la ca wuute wut ak islam lépp islam da ko intégré fu mu demit nag da koy yóbbaale léegi nag tey nga jël rek ci misaal bu gën a jege boo ñëwee ci islam confrérie yi parce que ci la ñuy waxtaanee tariqatul xaadiriye moo jiitu ci senegal bàyyi ko Mauritanie diggante Tombouctou ak Mauritanie waaye li ñëw Sénégal seen kii la bàyyi ko bokk na ci seen identité culturelle ci wàllu col muy li ñuy xàmmee ñu ca bokk. seen kaala googu nga xam ne buñ ko kaalaa day muur bopp bi ak in li ëpp ci seen xar kanam muy ba ca bakkan ba boole ca takk téere xànjar tey loola tax na ba tey képp koo xam ne ku ca bokk te bëgg koo dund dëgg-dëgg loola lañ lay xàmmee foo seen ci biir ab sénégalais boo xam ne dafa kaalawu kaala googu nga xam ne dafa muur bopp bi ba muuraale lëf ci bakkan bi takk téerab xànjar moo xam pël la moo xam séeréer la moo xam wolof la da ngay daal di xam ne xaadira ngi nii naka noonu laa tijaan yi itam comme moom itam bi ci ñëw Sénégal Fass la jógee ma euh, Algérie la juddoo mais bi ci ñëw Sénégal Fass la jóge Cheikh Mouhamadoul Hafiz Ah, muy Maroc moo waral moom itam tey bu ñu organisé woon benn foire culturel fii ci biir Sénégal wane ne confrères yépp ñoo fay teew kenn ku ci nekk lañ lay ràññee ku ci dul tarixatul muridiyya lañ lay ràññee ak sa morom du yëfi Sénégal muy col gañ lay ràññee ak melokaan la wañ lay ràññee li ko waral mooy confrérie boobu nga bokk buy tarixa boobu nga bokk bi muy ñëw aada yam àndaale woon aaday réew mooma la te ba mu ñëwee da ko koo da nga ko jël mu ko jël muridisme nag fa tabaarakallaahu yaar moo ko musal ci loolu muy juddoo gi mu juddoo ci réew mi ak fulla ji Seexal yi am ci teqalee diggante aada ak diine xam ne dëgg la diine fu mu dem fenn fu nekk dana fa yóbbaale aada ak culture ñi nga xam ne eh, mooy culture fa diine ja bàyyi ko mais nag bu aksee fi nun danoo war a téye diine jëta am fullay lay seen aada ak seen culture ñu bàyyi leen loolu moo waral fa tabarakallahu et eh, bu ñuy wax eh, participation bi nga xam ne mouridisme daf ko am ci wàllu ñaar yooyu dafay ràññeeku ba jéggi dayoo culture nag comme niñ ko waxee dafa làmb lépp lépp loo xam ne mooy identifier doomu aadama bi mooy moo koy ràññalee ak kaneen ci wàllu yooyu ñuy wax yépp Cheikh Al nag bi mu tàmbalee rek la wane loolu ci lépp culture propre culture boo xam ne purement murid du luñ jéggaane fenn ba noppi nekk islam biir dara lu ca génn islam amut waaye dara luñ ca jéggaane faneen it amut muy loo xam ne e mën nañoo xam ne fi nga xamee ne ni ko tàmbalee mbakki Kajoor da ba ñëw Daaru Salaam ak Touba waaye fi nga xam ne dëgg dëgg dëgg fi la joxe modèle boo xam ne nag euh, mooy nuxtatul intilaax mooy njaareem culture ni nga ko tàmbalee ci wàllu dëkkuwaay lu jiitu Seexul Xadim duggal ci artiste yëpp dëkk boo dem benn bu ne daanaka du xaw a am pénc la muy ama comme espace ba muy am sax géttu béy ga ci digg ba lay nekk ay ndéeg yu jaxasoo ak lu kenn xamul seexal xadim ñëw ne dëkkub lislaam dafa war a nurul lislaam pénc mi ni ñuy rë ni ñuy rëddee jàkka ni lañ koy rëddee pénc murit ma dem ni ñuy rëddee jàkka lañ koy kër gi ni ñuy rëddee jàkka lañ koy jëlee même néeg yi léegi ñeenti koñ ak kutumbal la fekk mu andi kaas carré muy ñeenti koñ nii jàkk mel nga xam ne néeg boo dugg bu ne kër murit boo dugg bu ne soxlawul ngay laaj ko xibla jublul rek parce que moom jàkka ci ñëwee néegu murit boo dugg benn bu ne parce que lu nekk dafa wax dafa rax sibra islamiye révolution boobu la njëkk a def ci wàllu dëkkuwaay ne pencum l'islam boo fa duggee dafa war a nuru l'islam ca penc maag dëkkuwaay ba ci wàllu séparation diggante góor ak jigéen lim ci def moo ko njëkk def dugal ci arsif ci kees yi muy nisaamu kees fi góor ñi nekk fi jigéen ñi nekk mën ngaa dugg ci kër gi ba génn doo xam fu ñu nekk loolu lépp ci wàllu dëkkuwaay bi mais nag contenu bi doo nga ñëw fenn fu nekk jàkkaa ngi nii daaree alxuraan ngi nii daaree xam-xam yi nii barabu liggéeyukaay yi nii waaye lu ci nekk lu ne nag daf ko jox sibra islamiya njariñ boo ñëwee ci daaray alxuraan tàmbali ci sëriñ Ndiass Cissé ñëw tey dafa indi proposé maanaam modèle culture islamique muri boo xam ne doon nañ jàng alxuraan di ko jàngale di ko bind waaye façon bindiin wi am ci biir daaray Seexal Xadim façon aariinu alxuraan ak ñoŋal ko ca jaafara ak yooya lu jiitu Seexal Xadim amutoon ku ko amaati ci Seexal Xadim nga ko amee tey eh, bindiinu yoonu murit ci biir alxuraan bindin la woo xam ne lu jiitu sëñ bi amutoon gannaaw bu amee ci sëñ bi it ku ko rey bëkk démb ñu ngi suñu alaaj dem ñu ngi organisé concours ci wàllu bind alxuraan 14 régions yëpp la ñu woo mais toujours deuxième édition bi jàll na mais toujours ñi génn ci daaree Seexal Xadim rek. ñoo yore te benn par parloo amu ci parce que bindin la woo xam ne norme agrégé yépp te dara ci lu xeeñ ak naar nag amu ci muy loo xam ne aar la façon max jaafare yi ñu ko daan defee loolu lu ko jiitu amutoon te lépp ci biir kër ga jàkkay Seex Xadim noddkat bi ak iqaam mat kii iqaam liqaam bu noddee walla mu liqaam boo xamee jàngi histoire ca ña daan noddal rasulullahi ak njële naan iqaamam dara du ca wuute waaye dara nekk naarewu ca dara xëyu ca ak naar njàngum alquran may noonu ñëw génn ci daara Seex Xadim ku ca jàng alquran norme ak ci ak naar nag laalu la waaye murit la loolu lépp nag yëmul ci loolu waaye dafa jàngale nag ne lëkkaloo ki nga xam ne iqtisaad ak culture dañ ko war a lëkkaloo comme ay seer mu xamal lu ci wàllu pratique ne am réew mënta développé ab société mënta développé développement bu ànd ak indépendance ak économique du dafa basé wu ci propre culture am loolu moo waral mu waree modèle boobu ci biir njaareem xoolal njaareem léegi mi ngi nekk ci centre urbain Seexal Xadim tenir compte ci réalité milieu social bi mu nekk xam nga ay ay ay ay dëkk wër ay ay suuf su jeex moo wër wër njaareem àll bu yaatu mais toolub Serigne tubaa ci li wër njaareem kenn gis ko parce que dafa tenir compte ci réalité yi milieu social bi mu nekk parce que dëkku taax la nekk kon nag na adapté wu ak activité yu dëppoo ak loolu xool biir kër nga ñaata atelier ñoo fa nekkan mm-hmm. atelier ministère yi suñ seex fattanko boo xam ne buut bi garab gi lañuy dagg ca àll ba indi ko am na équipe boo xam ne ñoom ñoo koy traité taaye taaye ko ba mu kii ñu dew diw ko diw gi ñu ko daan diwee daawul xar wëttéen mii danaa ci ñëw saalu wëttéen bi moom lañ daan toj segal ko nal ko diw ga moom lañ ci daan diw suul ko ci kii lu war a mat juróom-ñetti fan bu ñu ko génnee du du fett du far du def la la loola aar la kii boo xam ne foofu lañ foofu lañ ko inventé woon buñ noppee doo ko jox suñu Seex Faat Tàkko ñoom ñu liggéey ci lañ ci doon liggéey ci ay lal ay tablette ay armoire yoo xam ne leen lu nekk sëriñ bi moo leen di indiqué ni ñu ko bëgg a defee ni ñu ko bëgg a lépp mu am sibqa islamiya cordonnier yi ba nekk ci biir kër ga sëñ as gane moom wax ne sëñ Modou Mamoun moo ko wax ne ko cordonnier yi ba sëñ ma sàmba sunu bàyyi moo ko jiite ma topp ci moom sëñ Modou Massamba topp ci sëñ xaas topp ci mu ne ko gàtt yi ñuy rey ci biir kër gi yépp buñ ko feesee ñun lañuy jox dar bi ñu def ko ni ko wuudee def ñoo koy lëxundi traité ko ba akal maxtume yi ak jaafare yi ak dàll yi sëriñ bii sol ak yiñ koy defar bu di ko jox gan yi fiy ñëw lépp noo ko doon liggéey kenn ku nekk mu wax ko lam lam lam ca doon def loolu lépp pour jàngale lépp lu ci nekk yor sibra islaam yi ci biir kër gi waaye boo ñëwee ci wàllu col ga saa koy wëttéen yi lañuy indi saa bàjjen yi ñoo koy def ay mobile ay poqe bu ñu noppee def ko ay sor am na modèle pour jigéen am na modèle pour góor bu ñu noppee maanaa cuub ket yi ci biir kër gi ci njiitul soxna Patak ko ay eh, soxna Aminta Jobbe mi ngi fi cuub pour góor cuub pour jigéen turki njaareem foofu lañ ko créé kooku fi gis muy col goo xam ne dafa dëppoo ak li bi rasulullah yi doon sol ab jullit war ne mel te ci biir murit gi la juddoo keneen ku ko kii kenn ku nekk foofu nga foofu nga ko kii demal nañoo dem ba wax ne bindikat yi wax nañu ne jamonoy seexal xadim li tàmbalee mille neuf cent eh, mi li tàmb li tàmbalee mille neuf cent treize ba bi muy génn àdduna lu ëpp soixante pour cent ci li way njaareem di sol ci biir kër gu mag lañ koy liggéey maanaam wëttéen yi foofu lañ koy inde fa lañ koy rabbe jigéen ñi am nañ seeni sor muy daraay daraay rabal du jigéen am na jàng ji ak njagamaar yi ay taybaas yoo xam ne rabal lay doon góor ñi itam am nañ seen style bopp bu rabal am na cuub gi palmaan am na rombal am na sàmba seen bi am na lépp ci biir kër gi muy loo xam ne islam piir la waaye murid piir la Abdou turu Seex Muntaka ba ma tuddee Sëriñ Abdu képp ko xam Seex Muntaka danga xam fa mu ko teg danga xam itam li ñu séq muy lu yàgg lu am solo loo xam ne nii waxtu wu ne Seex mun mi ngi koy feeñal te loolu Cheikh Mountakha du defee yëf yi boppam kese lu mu def lu ne dafa am lu wóor lu tax mu di ko def kon nag jarut ma di la wax fala Cheikh Mountakha teg ndax mbooleem jataay bi xam nañ ko looloo tax wóor na ma ne yaakaar naa ne yow itam wóor na la bu fekkante ne mënoon naa jóg ñëw tey ci jataay bi wóor na ma ne yow itam wóor na la ne moo koy defal boppam looloo tax tey daf ma woo ci fekkoon ma nekkoon ci yoon waaye mu wax ma ko ne na ma teewal ko fi loolu ñor bu nga xam ne ñor nga ko moo tax mu wax ma ko ndax ak bëggoom ak mën a teewam te ku ne xam na ne léegi liggéey bi munu ko mën a tuta teewe yenn yi muy bëgg yépp moo tax waaye am na itam leneen loo xam ne wóor na ma ne bu ko mënoon dana ko fi teye ndax ku ne xam ne mun Mountakha ak sëriñ bi ku ne xam ne Cheikh Mountakha ak xam-xam te ñooñu loolu moo waral jataay bi fii nga xam ne kon doon na nekku ak bëggam lool mu mënoon a fekke si tey lu mel nii te gis naa ne mbooleen ñi ko fekke itam seen xol sedd na lool ci jataay bi ñi nga xam ne ñoo koy waxt yor waxtaan wi booy dugg si rek ni nga gisee ni nit ñi concentré woo ci li nga xam ne moom la ñuy wax moo lay xamal ne li ñuy wax ñor na leen waaye kuy wax la am solo nga waxee foo xam ne ni ña ngay waxal soxla woo nañ lañ ngay wax te xam ko itam moo waral jataay bii am solo kon nag Cheikh Abdou Samad jërëjëf bi nga xamee ne lu mel nii def nga ko mu dugg itam ci sa liggéey maam bi bu wóoru wóoru rawat na ci weer wii nga ko tànn di ko ci def te mën nañ ne weeru safar bi mooy weeru Cheikh Abdou Khadim mooy weeru Sëñ Tuubaa ba tax na fépp daanaka murid yaa nga fay jéema def lu xaw a mel nii wala ña nga fay tàmbali waxtu wu ne ay tiraanga ndax di ko gën a fàttalikoo sëñ bi gën a anticiper ci cant gi nga xam ne murid yëpp ñu ngi koy sant leen Cheikh Ahmadou Khadim kon nag lii lu am solo la waaye li ci ëpp solo mooy li ma wax leen lim dugg ci xam-xam lim dugg ci xamle sëñ bi ci xamle ndax li Cheikh Mountakha di wax dafa am solo lool daf na li ñuy li ñu dundee lépp ci sëñ bi dund bëgg la waaye taxut nu xam ko kon nag bu fekkente ne jataay yii mi ngi am dana bokk ci li nga xam ne mooy gën a xamle sëñ bi ndax xamle sëñ bi ku ne xam la ne mooy xamle suñu borom mooy xam le lislaam mooy xam le seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nag lii ci weer wii weer wu tedd wii weeru sëñ Tuubaa wii woote gi lu am solo la sant naa yàlla man bi nga xam ne Cheikh Mountakha xalaat na ma ma teewal ko ci fii ci jataay bii ak njëriñ yi nga xam ne moo fi nekk ci fekke ko kon nag sant nañ ci sunu borom bu baax bi may dugg si maa ngi fekk docteur Khadim Sylla di def conférence ñu teg ca alxuraan di ci teg sëñ Touba di alxuraan ndax moo nekkal alxuraan waaye li am solo lool nga xam ne dafa dugg ci man li nga xam ne daanaka sama itte la lool mooy économie murit loolu la sëñ Xaadim doon wax ku ne xam na ne li may waxe waxtu wu ne mooy ne gëm naa ne Sénégal du dem te murit yi organiser wuñ ba yóbbu ko fa mu jàpp naa ne waxtu wuñ ko defee itam du yem képp ci Sénégal Afrique gépp la ñuy yóbbaale bu déglu sëñ Xaadim ci statistiques yi mu joxe. kuy xalaat rek gis réew mi ni mu demee ak ni waa Kër Sëñ Tuubaa yi demee nga xam ne loola li nga wax léegi ci làmbaay dafa am solo dafa mel ne bi tubaab yi laajee sëriñ bi ay soldat ngir jaaxle dafa mel ne sëñ Tuubaa ñam fa doon yabal yi def leen dajale jullee leen lu am solo la ba muy yable xeexu économique ñuy dem Ndakaaru fas yéenee xeex xeex boo xam ni boobu def leen woo dénk leen dénkaay boobu yaakaar naa ne war nañ koy gën a tasaare ba murid yi gën a xam ne liñ nekk ndigalal Sëñ Tuubaa la dañuy gën a siiwal ci lu bari murid liggéey baat boobu dafa gàtt loolu dama ne loolu sax bokk na ci pexe yi pexe yi nga xam ne tubaab yi dañ na koy fexeel bëggunoo noo ci liggéey mel mbaam muy liggéey kese waaye liggéey bi sëñ tubaab bëgg ñu def ko te mu am njariñ muy liggéey ngir yàlla yaakaar naa liggéey yu nitu tubaab li mu wuteeg beneen liggéey bu ne mooy day nekk amalu saalih loolu mooy li des mooy liggéey bu am njariñ liggéey ngir yàlla bu dee liggéey kese bu ñu nee murit liggéey murit liggéey mel ne mbaam ma liggéey te xamuñu lu tax murit di liggéey kooku dañ ñoo bëgg a féetale fenn kese bëgg nu yem foofa fàtte leneen fàtte xam-xam fàtte lépp nekk ci loolu kese ci liggéey yee gën a metti waaye murit dañuy liggéey ngir yàlla gis nga ndigal la sëñ Tuubaa joxe ñu war a dem fekk na fu ne organisé organisé na tool yi organisé ñëpp waaye ba muy ba ñu xalaatee fas yéene conquérir conquête bi nga xam ne jublu nañ ko ci dëkk yu mag yi surtout Ndakaaru muy capital ba na leen sëñ Tuba dénk loolu mooy li am solo loolu tax dénkaane boobu war nañ koy gën a xamal taalibe yi ba xam ne li ñu nekk mooy dëgg te itam ci bëggu sëñ Tuubaa lañ nekk waaye buñ fàtte ne bu kenn fàtte kuy liggéey ku ne ak ku ne fa nga nekk bëggug sëñ Tuubaa mooy bëggug suñu borom kon murid dafay liggéey ngir yàlla def ngir yàlla bu fekkente ne defut ngir yàlla génn ca loola loolu mooy di am solo loolu tax loolu ñuy liggéey ngir yàlla seetuñ ci dara ngir yàlla moo tax ñu àgg fii ci économie sénégalaise loolu nag luñ ci gën a réfléchir gën cee xalaat gën ko organiser li ma wóor mooy Sénégal dana àgg foo xam ne ni benn réewum Afrique àggu fa mi ngi aju ci taalibe te mën nañ ko fa àggale loolu kuy seetlu ku ne xam na ko te bu boobaa duñ ci àggale képp Sénégal Afrique gépp lañ fay àggale sëñ Xaadim loolu tax sa discours bi am solo ci noonu dafa am solo war dañ koy faral di wax ak weer yi ñu baree bari ginnaaw masaalik ñi ngi commencé wax ci jaaxle ci murit yi nu ñu defe lii ak système de financement bi ñu ko defe ñu commencé xalaat ne lii système bii ñu def ba taxawal lu toll noonu te xamuñu ne foofa ña ko tàmbalee daanaka ba sëñ bi ñëwee njaaree ba a ñu ngi ci liggéey boobu le waaye bu ñu fàttali ko raay bi fàttali ko jumaa ji fàttali ko jumaa njaaree dañuy xam ne système mu murit boobu bu tàmbalee bu yàgg la te système boobu bis bu ko organisé mooy àggale Sénégal ak Afrique fu ne mooy di def ngir yàlla di liggéey ngir yàlla te kenn ku ne daanaka di liggéey ngir sa morom mooy solidarité bi nekk ci yoonu murit ko xam ne nii lum loo sori sori su sëñ bi waxee nga gis ne wax joojee wax suñu borom la wax yu dëgg la wax yu jariñ la nga topp ndigal loolee loolu moo waral nu àgg fu nga xam ne keneen àggu fa te lu gën a jaar ci yoon woowu gën a dëggal yoon woowu Sénégal di gën a dem fi mu li nga waxee te mooy dëgg lii fi am murid yi def ko fi amul feneen fu am ci Afrique te jàpp naa ne ab tàmbali la am na lu tuuti rek exemple bu te loolu lépp sëñ Tuubaa mooy organiser lu ko neex ba tax na fi ñu toll waxtu wu ne am na déroulement bu muy defam ci bëgg-bëggu sëñ Tuubaa bu ñu seetee liggéeyu masalit bi ni nga xam ne ni la ñi nga doon lim léegi ñi nga xam ne jàpp nañ ne ñooy ñi ëpp xaalis ci yoonu murit tey ay taalibe yi nga xam ne liggéey sëñ Tuubaa rek lañ bëgg ñu xalaat ne nun kat liggéey bii danoo war a daje nun ñi taalibe yi sëñ Tuubaa yi defar ci lu nga xam ne kenn su ko def ci mbooloo loola dafa am solo jàpp naa ne mooy tàmbali li nga xam ne murid yi mën nañ koo def non seulement ci liggéey waaye organiser seen bopp ci biir économie sénégalaise ba nga xam ne ëllëg gi si biir leneen luñ soxla noonu lañ koy defee buñ organiser si te noonu lay yombe loolu tax ma jàpp ne li ñu def dafa bokk bokk ci bëgg bëggub sëñ Tuubaa bëgg leen a gën a delloosiwaat ñu xam lakka lañ man a def ndax ba nëgga nii dañoo tasaaroo dispersé wu kenn ku ne di def pour la première fois mu di daje ay murid yu amee alal yu jàpp ne ci ñëpp alal ñu jàpp ne xëy na danoo war a dajaloo liggéeyal sëñ bi nan xalaat buñ dajalee ñoom ñëpp nekkat secteur sàngam ak secteur sàngam dañ cee war a dajaloo ànd ca def ca lu nga xam ne kenn individuellement kenn mënu ko ca ba mu gën a taxaw def ko ci industrie def ko ci construction def ko domaine bu ne buñ ko fa defee li ma wóor wóor ñépp koo gis loola képp ku bëgg Sénégal du dox dana la tiital lii rek Masalik bi yaat nañu bare bari ci lan la waa Kër Sëñ Touba mën a def loolu tax sa wax ji am solo yaakaar lu mat a gën a waxe la ba murid yi fiñ toll ñu gën a xam nu ñuy gën a mën a organiser ba gën a mën a dajaloo gën a dajaloo ndax ndax adduna si léegi économie adduna si ak mbooloo ko yor kenn mënu koo yor benn entreprise am na yoo xam ne mënu koo def looloo tax ñuy gis lu bare bari ci réew mi léegi bu amee tubaab yi lañ koy jox ñoo ko mën a def ndax entreprise yi par benn yi nekk Sénégal yu ci bare bari mën a dugg ñu fa àgg waaye na leen ñoom fukki nit képp ñaar fukki nit fanweeri nit ci ñi nga xam ne ñoo jiitu ci économie Sénégal dajale woon fa ci benn secteur fas fa yéene def lu nga xam ne keneen mënu koo def boobaa amul benn entreprise buy jógee feneen buy mën a def lu nga xam ne mënuñu koo def te loolu mooy njariñal Sénégal kon nag ñun Sëñ Tuubaa danoo daa da yàlla danoo dimbalee Sëñ Tuubaa ba mu def xol yi def def itte yi def pasteef bi ndax kenn mun a développé kenn mënut a dem te amoo pasteef amoo itte pour dem sëñ Tuubaa danoo digal itte pasteef te te léegi gëm nañ ne fu ñu àggut ci itte jooju suñ ittey sëñ Tuubaa moo des ak domaine bu mu mën di dugg kon nag loolu lu mat a xam la te fekk xamuñu ko organiser ko Sénégal jëmul fenn il faut nu xam ko organiser ko Sénégal dem Afrique dem xaj na loolu nag ca pexe ya xam ne yàgg na fi lool ndax bañ rek nu nu dem ndax xam nañ lii xam nañ mbooloo mu toll nii ñuy déglu ndigal di di te fas yéene di liggéey waxtu ne ñooñu fañ mën a àgg xam nañ ko waaye bëgguñu ñu ànd bëgguñu ñu tasaaroo ndax xam nañ ne buñ àndee mën nañoo def lu ne looloo tax fan yi masaalik yeeyaat na ñu baree bare mu ngi sant bu baax baax ci teewaay bi te di ci bëgg lool ñaan borom bi subhaanahu wa taala gën a yàggal taxawaayu Cheikh Mouhamadul Mountakha gën a yàggal itam taxawaayu njabootu Serigne Touba gépp ndax Serigne Touba lim réussir kenn da koo réussirul ci àdduna am na ku bind ab téere tudde ko alxaaliduuna mi a maanaam di ci wax téeméeri nit ñoo xam ne ñoo gën a ràññeeku ci àdduna xam naa bu ko doon bindaat tey buñ ko waxee Serigne Touba mu jàng ko ba xam ko moom lay def numéro un ndax ginnaaw ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàllee te eh, mbokk yi doon waxtaan fii léegi wax nañ ne ak yonent du ak njàmbaar suñ boroom a koy tànnal nit waaye nag ku jekki-jekki laxasaayu def li Serigne Touba def ci kaw suuf réussir ko ni mu ko réussiré xuus ci àdduna ba jàll te taxul ban bant jëmu ko ku mel ne Serigne tubaa doo nga ko mas a def te yaakaaratuñ ni kenn dana ko def ginnaaw loolu nag di ko feeñal ci xam-xam di ko feeñal ci njàngale di ko feeñal ci bi yar di ko feeñal ci ay comportement loolu la jotaay yii di jariñ ndax màggal cant yàlla la te ak cant nag moom day feeñ ci ay wax waaye day feeñ ci ay jëf te mooy feeñal li Serigne Touba am faxsusil xasasa la alquran wax kon nag nettali ay xarbaaxam ak ay jaar-jaaram aku njàmbaaram day yokk ak waa këram yokk ay taalibeem njàmbaar ba fu ñu yëkkatee ci àdduna ñu xam ne ñoo fa man bu ñuy wax bu ñu jëf ñu xam ne ñoo fa man bu ñu liggéey ñu xam ne ñoo fa man bu ñu jàng ñu xam ne ñoo fa man bu ñu bëgg yonent bi ñu xam ne ñoo ca man lépp lu ñuy def ñu xam ne ñoo ca man te loolu feeñ na ndam yooyu yal nay gën a tegaloo yal nay gën a jëm kanam yal nay gën a sax maa ngi jégalu lu baax sëñ Abdou Samad xam naa jot li la ay kàddu ci bis bu mel nii ci kanam sa mbokk yi fi jot a ñëw ak boroom xam-xam yi fi teew dina jafe waaye buñ junjee rek danañ xam lenn lu baree baree bari ci li nga bëggoon a wax bisimilah. leen wax may wax loo kenn waaye baat bi neexul rek moo tax waaye gi daal foofu takk rek wér na ko ndax hmm. li ma koy wax rek waxtu ne lu jiitu lii muy nekk sëñ Tuubaa sax laa ko daa wax ne ko suñ kër bopp gii nga xam ne moom fi li am sëñ Tuubaa lépp ci lañ ko amee muy kër sëñ Sohaybu bi moom yàlla dafa def mooy taawu kër gi sëñ Sohaybu bi da ko jiitaloon ci kër gi ci léppam loolu it gannaaw sëñ Sohaybu bi sëñ Seex wéyal ko def ko muy kilifa kër gi kon nag noonu mooy seen kilifa ci lépp gannaaw loolu mu far doon kilifa murid yëpp gën gënnoo yilifati li jiitu loolu lépp nag ñu am ak cofeel gu ñu dox suñu diggante te am lu mu àmbal loo xam ne it jomb na ma ëpp na ma tam xam ko te ñu ko jege ñëpp xam ko nga xam ko kon nag jotaay bi yaakaar naa suñ Mamour doom mi ak suñu ëppoo mais buñ fi toogoon doy na sëkk yow ñëw ëpp na waaye li la xolam ak cofeelam ak yéenam ci nun ak ci murit yi rek moo xam moo waral mu yebal la kon nag bi nga egsee rek dox yi doon root rek war na ne xéewal ñëw na liñ doon def lépp nangu nañ ko suñ Tuubaa nangu na ko jërëjëf Mbacke yàlla yàgg lool ñu ngi siyaare bu baax te sant ñëpp ñëpp ñëpp jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi ci turu Serigne Abdou Samad moom Serigne Saaf nee xam naa mi ngi jégalu bu baax baax ci ñi nga xam ne ñoo waroon a yëkkatiwaat ay kàddu nee na rek dafa gis ne rek guddi na. ca xëy na bu ko sàkkoo ci ñoom danañ ko ko defal waaye boobaay toggoo ab coono lay doon ca daanaka lu dul doy lu nekk loo ca am mën nga koo doyloo nee na kon mi ngi sant ñëpp di gërëm ñépp di jégalu ñëpp li mu yittewoo woon ci bis bi rek sant na yàlla ndax am na ko ndax ñi fi teew xam na ne nitu qualité lañ yoo xam ne caaxaan du leen yëkkati ñi teew ci jataay bi boo ko jàngatee nee xam na ne ñoom caaxam du leen yëkkati kon nag wuy si gi ñu ko wuy si ngir lim woote kon gëmee na ci jàppee na ci bu wér a wér ne lim doon woote alhamdulilahi rabbil alamin am na ci lim bëggoon rawat na kilifaam gi nga xam ne moom moo ci teew nee na nag baywul kenn presse bi fi teew ñëpp it noonu nee na du ñu lim ndax bu ñu limee mën nañoo juum mën nañoo bañ a matal ndax yi ñu bindoon ñu ngi gis muy dolli ko ñu koy def en direct muy télévision yi du may euh, duñu du ñu lim ndax xëy na euh, ak site internet yi ak rajo yi yëpp ñu ngi koy ñu koy def internet ñi ko def euh, en direct ak ñi nga xam ne ñoo ngi koy jël fas yéene ko tegaat ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waaye nag lu mel ni ki Serigne Sam li mu waajaloon ci arab des na ko jël moom it mbooleem fu mbir yi jàll mu jàll ci li nga xam ne sëñ Abdul Muhamin waajal na ko ci àngale allah taala ngir mu résumé jataay yi dañ ko jël ci ñoom fekk leen fi ne jël ko ngir mu mën a tasaaroo ni nga xamee noonu la jataay yi tasaaroo incha allah taala waaye nee sant ñi fi teew ñëpp góor ak jigéen mag ndaw di jéggulu ci guddee ndax bëggoon na balaa minuit rek mu jeex waaye nag dafa xeroon ci ne bëggut di téye kenn ndax am na ñoo xam ne xëy na bu guddee mën nañoo rocc ko moo tax mu ne woon yëfi njóobe nii nañ ko jiital ba nga xam ne njëbin bu ci bëgg rocceeku dana yomb ci yow kon loolu it lu ci am solo ndax bu ñu ñëwoon ba agsi ci waxtu ku nekk mu lay téye naan mënoo ñàkk xaar yëfi njëbin yi dana xaw a doy ci ñenn ñi waaye kon sant ni ñëpp rawatina nag ñi nga xam ne ñoo doon taxawee waxtaan yi ak leen jéggulu man mi nga xam ne maa doon modéré jotaay bi ndax say kilifa rek ngi leen def si ñag benn minute nga dese ñaari minute nga dese wax du yàlla loolu ñu ngi koy lu ni jotaay bi tëdde woon rek la waaye di sant nag sëriñ Ahmadou Mbacke moom sëriñ Falilu moom sëriñ Chouaïbou ak sëriñ Mouhamad Mbacke moom sëriñ Abdou Samad bi nga xamee ne sëñ bi mu xalaatee lii woo ma ne ma soo jullee gee ba noppi nga ñëw fi mu ñëw mu wax ma li mu bëgg dafa maa boole ak ñoom ne ma bépp xalaat boo ci am rek waxtaan ci ak ñoom sant naa leen bu baax a baax coordination bi am na solo trop boobu ba léegi ñi ngi ci ñi ngi ci ñi ngi ciy liggéey ak mboolem ñi nga xam ne ñoo ci jàppoon ñëpp nag wax dëgg yàlla kilifa yi comme ci doon ba ma ne la sëñ Abdou Samad nee na mënoon na ne bu ma soxlaa na ma wool boppam moom nañ ma ko wax waaye kenn ci ñoom rek wax dëgg yàlla ku ma ci wax ba daal rek cawarte nga may woon gu ma gu ma sëkk ngir lan daf laa woo ci loo bëgg daf laa woo ci li nga gëm daf laa woo ci li nga xemmeem muy liggéeyal Cheikhul Khadim radiyallahu anhu kon nag liñ ci seenu lépp ci ab yool yàlla nañ yàlla defal suñu kilifa sëriñ Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg lool ca wér ca naal yi mu naal yëpp yàlla na sotti ca mu naalaat sottalaat ci barke Cheikhul Khadim radiyallahu anhu ndax ku ne xam na ne su fi yàggee day incha allahu taala l'islam dana am ndam l'islam dana jariñoo ak dundam bu baax a baax kon yàlla fi yàgg ci wér ak rakkam ak mboolem ñun taalibe bi ñëpp ñoo ngi jégalu ñëpp kon kàddu yooyu la sëñ waxoon ñu tëje ko jotaay bi wasalaamaaleykum lépp lu ci mataj rek wala lu ci manqué rek ci man la waaye lépp lu ci mat nag ci yéene yu sell yi ko laltaayoon la wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ni ñëpp tàllal kon sëñ bi ñaar lam